السلام عليكم بسم الله دلنا اليوم seen euh, plateau spécial bi nga xamné rek mom leen euh, ba fas amal tey si euh, T3B télé bu baax bi pour rek def jàngat par rapport ak ONGI élection bi deme bi dinañ waxtaan aussi si li nga xamné mo cette nouvelle alliance bi dox PDS ak ñi di way Pastef on va parler aussi si les prêt que xamné ne na élection bi ak li nga xamné mo nek absence de ces parti euh, classique yi nga xamné néméku euh, élection présidentielle euh, bu 2024 bi idéologie des partis politiques est-ce que fu mu toll nii mun wax Sénégal les combats ou les duel par procuration yi nga xamné néméku nemmeeku nañ ko se fait toujours désiré tous ces sujets n'ak tay jii mom euh, avec euh, euh, l'équipe mon trio de choc il s'agit de Pamou il n'est plus à présenter si espace médiatique bi di def solo par rapport à l'actualité de manière générale surtout les questions liées à wàllum justice Keren Pifieto, Sam sama qui qui journaliste bu mag bi la <laughs> Mbaye nga vous remercie. journaliste bu mag nga di yow nga dem journaliste nga maa ngi lay ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay yow yaa jël maa ngi lay ziar soxna Diagne récréation bi jeex na de fu mu toll o, commencé nañ liggéey déedéet tey tey yow Pa Moussa ñu ne yow taalagoo sa micro Moustapha ñu ne taalagoo sa micro ah, ba tey yaa ngi ci récréation bi taal nga ko euh, Moustapha taal na micro euh allez-y. voilà mang lay nuyu Soxna djap di nuyu Pape Moussa mi may bokkal jotaay bi di nuyu ñëpp ñi nga xam ne dañuy waxtu yu ak fepp fu ñu mëna nek rek di leen nuyu di leen ziar. plaisir retrouver waat la. c'est partagé. merci beaucoup euh, Pape Moussa Sow. oui Soxna Diack bi tey mu sell mi maa ngi lay euh, nuyu bu baax di nuyu Mouhamadul Moustapha moom mooy kilifa gi nag kilifa diina bu mag la. Ah.

<laughs> na na na ma maman Marème kii ah. dafay wax eh, dama xam ne ñi nga dig takk yëpp bés boo leen naree takk moom Pa Moussa moom moom moom moom yaakaar naa ne xoolal. <laughs> diis jabax moom dëgg. Ah? ah commencé woon bëgg naa sama sama sama bakkan bi dama doon foo rek ndax kii moom ku ko nar a fekk moom sàllaahu <laughs> garçon manqué nga loolu la Marème ci garçon manqué la maa koy nuyu bu baax di ko jox wàcc waaye moom du rate suñuy jotaay déglu ma xam nga instant yi yàlla bu wér mën nga dugg ci waxtaan wi yàlla ma bëgg a lambaloo si dëkk bi di di wax ko man garçon manqué la dama ko bëgg a xam loolu la loolu moom dama koy témoigner quoi lan pour lan ñu xool ndax góor nga wala jigéen garçon manqué la <laughs> am problème góor laa si liggéey am problème. ah kay waaw loolu. waaw am loolu foog ngay xam ko. pour ah. xam ne yi may doon wax noonu yëpp après furaas lay doon. dara dara dara du ci taxaw. dara du ci taxaw maa ngi nekkal. Euh, man ma nekk jigéen sénégalaise. ma duus gis nga ñaari fay yooyu teru démb. Eh, waaw gis naa leen bu ñu duggee pale pale bi dina. waaw waaw waaw ah. waaw waaw franchement il euh, a de il a de belles dames quand même. macha allah Bassirou Diomaye Faye les mesdames Faye. oui macha allah kat. aaw bi moo war a doon première dame keneen ki kan moo si aaw bi kan moo si aaw ah, ah, bi mooy yaay Ousmane. mon nekk est moo nekk voilé woo euh, euh, def perruque bi fashion non mais quand j'ai vu jabari lay reetaan Bassirou Diomaye nee na ñu wax que Basirou Diomaye fay euh, salafiste la moom léegi salafiste du day perruque non bon cest c'est un faux débat parce que salafiste bon man du ma fa sax est-ce que moom la nangam la parce que mom denkuñu ko sunu mm. euh té it euh, bu dee appartenance religieuse pourquoi on ne le pose pas ci yenen pourquoi à chaque fois faut passer rek la ñuy wax. Mm. ban tarixa nga bokk nangam nangam. té c'est quoi lan moy problème bi Serigne Fallou euh, ba mu jappalé euh, jàppale euh, dafa am ku ko mos ñëw di ko laaj noonu ne ko mais pourquoi ngay jàppale kii nga xamante ne du jullit. au mm. détriment de jullit yi nga xamante ne soxla nañ li soxla. mu ne leen man Senghor dénkuma ko sama diine c'est vrai et il, a résumé toute la situation alors maintenant si on ça salaf ça Salaf hmm. les pieds ancêtres hmm. ah, c'est catastrophique c'est-à-dire euh, retour aux pieds ancêtres euh, moi loolu loolu la ñuy wax salafiste salafu mm. saalihin mais loolu c'est une très bonne chose mm-hmm. alors donc kon <laughs> foog naa ne loolu c'est est un faux départ qui est surpassé déjà parce que jàllul quoi jàpp naa beaucoup de na ci euh, parfois politique de diabolisation et de manipulation bu ñuy teg ci kaw Pastef mais loolu c'est c'est c'est est c' est foog ne gars yi page boobu parce que Sénégal ay fekku leen <laughs> en plus j'aime bien cette euh, nouvelle tendance bi nga euh, si Américain et leen ko lui di présenter la mm-hmm. famille xam nga je pense que ça ça rassure nga nga xam amne sa njiitu réew euh, am na li nga xam ne moo nekk ni sax famille c'est mm-hmm. important cette tendance bi nga xam à chaque fois dañuy gis les épouses ou bien l'épouse parfois mais beaucoup les même

affaire bi évolué xam nañ ne rumeur la woon rek quelque chose comme ça moo tax toujours dañ lay jéem a attaqué sa diine attaqué la sa soxna attaqué la sa njaboot. Mhm. yaa ngi wax léegi euh, tendance bi ñuy indi. Mm. Pastef ñoo ko fi indi ah Ousmane Sonko moo fi ñoo présenté fi soxnaam yi. Mm. Euh, mom la gis mu defagum ko fi hein mais on a vu aussi on avait vu Macky Sall toujours au côté de non Macky bala bala balaa mu doon falu est-ce que Marème daawul woon exposé nii. je ne souviens pas ben non ci bir nit ñi. mais fat fu ñu euh, meeting génne ko mu taxaw ci wétam ni nga présenter ko public bi. Mm-hmm. loolu je pense que vague de politique yu bees yi am ñoko ko commencé di indi et c'est bien. Mm. Euh, politique dafa dox man je suis pour. ëtt bi di changer parce que boo am leader yu bees dañu war indi ay doxalin yu bees mm. ay yeneen gis-gis yu bees ay reen réaction yu bees changer affaire Et loolu je pense que ak génération bi di ñëw euh, dina am coppite bu baax a coppite yu baax a baax euh, les gars balaa ñuy dugg rek euh, suñu vif du sujet ñu nuyu euh, suñu mbokk internet yi nga xam à chaque fois ñoo ñi dooleel si li nga xam ne moo nekk émission bi di rek commenter di rek partager li nga xam ne moo nekk live bi abonné aussi massivement à la chaîne T3B télé bu baax bi Mame Gor Cissé ñu ngi koy ziar bu baax aussi ziar naa ko aji si nuyu naa ko bu baax kii di la même chose cher Boy euh, Paris France Paris France aussi beaucoup signé ñi euh, fidèle internaute T3 Belène euh, Bassirou Diop aussi Nuna naa Bar bu baax Fall aussi la même chose Nar n'a qu'au naa ko bu baax Mbaye Fall Ngouda Fall Ilarène Mané aussi Ngouda Fall Mohamed Ndiaye Dramé Nardien Pape Mang Moustapha Kebe Abousso

bàyyi ben, la Dramé aussi tcherno la Alpha Kane aussi ala Sess euh, ñu koy nuyu Mor euh, mu depuis Espagne Mohammed Dem euh, Serigne ndjay ñu koy ziar mordra, Dra di ziar ñëpp Dramé ñom bay Cheikh ndjay Massamba Meng Moussa Lami aussi di koy ziar bu baax hein, c'est toujours un plaisir Morsen sen aussi qui nous suit euh, Espagne euh, de di sàkku rek à ce que ngeen partager massivement li nga xam ne moo euh, cette émission je suis avec le trio de choc par Moussa mi nga il n'est plus à présenter Ces espace médiatique bi ndax liggéey bu rafet bi nga xam ne koy amal si les questions d'actualité surtout les questions liées si wàllum justice qui du journaliste bu mag bi aussi Mustapha Mbaye aussi mu nekk journaliste boo xam ne ràññeeku na baax si rawatina analyse yu am solo yi nga xam à chaque fois daf koy euh, def euh, si euh, Walum journalisme bi vraiment c'est un plaisir ànd ak yéen bi les gars on peut dugg léegi suñu vif du sujet. Mm-hmm. acca bismillah bismillah c'est parti pour deux heures de direct. ah oui deux heures. <laughs> <laughs> C'est parti pour deux heures de terrain. On démarre avec euh, PDS euh, ou bien Bougan euh, Bougan Dembe Disney, neen mu def vidéo di xamle ne fu toll élection présidentielle yi nga wax amal suba Inch'Allah, Rabi, mom amul kenn Ko xam rek dina ko jàppale waaye yeewi ay militants pour rek ñu Kuni ku mais d'affaires rek abstenir ba deuxième tour mu orienté euh, gaayam yi. kan moo deuxième tour day am. ah deuxième tour bi la <laughs> bon euh, pour moi euh, il est en train de rater un tournant décisif notamment de sa carrière politique. Mm. mais aussi du trajectoire Sénégal xam nga man dama en 2019 choix de mu defoon ci Idrissa Seck un choix incohérent mm-hmm. vu mon discours vu vu parcours am man dama jàppoon et puis lui il se réclame de l'antisystème mhm. alors euh, tey jii nii bu ñëwé ci euh, élection bi mu né dafa banque comme niko PDS defoon en 2019 Tay bi ko PDS defoon en 2019 j'avais dit que ni ça faisait l'affaire euh, du président Macky Sall mm. parce que man na né ne ne pas choisir c'est aussi choisir hein. mm. parce que le choix comme dit André Gide c'est fatal c'est le rejet de ce que l'on ne choisit pas alors donc euh, ak péripéties Sénégal yëpp depuis 2012 euh, bataille. wala depuis 2021 bataille. tey euh, ñu yegg ba ci nga né abstention wala na ne def lu ko neex pour man loolu euh, fuir ses responsabilités la d'autant plus que bougal sur toutes ses interventions il a été l'un des opposants les plus radicaux mm, mm. au régime alors donc kon yow bu dee critiquer nga régime bi ak critique yi nga ko critiquer boobu ba léegi nous avons ba fi nga xamante Sénégalais yi opérer un choix nga ne yow faux choix mais ça pose une question vraiment de cohérence. peut-être ils se retrouvent pas aussi euh, si euh, élection puis aussi pas Moussa mun nañ ko nangul loolu. non je ma ko dara. oui dama d'accordul. Mhm. xam nga bañal ko ak d'accord bokkul dama d'accord cohérent wul. parce que euh, je ne l'ai jamais entendu critiquer aussi ouvertement mhm. l'opposition que le pouvoir. c'est vrai Mon pouvoir bi la y a alors ñeneen ñi mu gagné. Euh, te man dama ko dama ko wax. Mhm. dama bok ak Bougane jotay mu mom moom euh, bu mbiri de continuer non moy moment yi ñu doon wax. c'était à Walfadjri que ni dafay soutenir euh, Sonko ou son candidat. Mhm. je l'ai entendu je l'ai vu. alors donc kon tay jii nii bu ñewé nekku ne na def lu ko neex man je ne comprends pas ça. Mm. ben ñaarel ba moy aussi cette absence de choix là pour man ça fait l'affaire du du du du du régime. du mm. candidat. Euh, du parti au pouvoir oui man loolu la loolu parce que en fait euh, mënoo mënoo mënoo mënoo critiquer aussi aussi sévèrement aussi radicalement euh, son régime après ñeu né voilà légui nak sénégalais yi ak ñi nga xamante ne ñoom la andal mom ci gëm sa bop it cohérence wala boudé li tax ñu top Bougane Gueye Dany mooy ay opposant farouche nek ay opposant radical nous moment moom euh, reflété donc je ne vois mal comment euh, avec cette bipolarisation nous allons croiser les bras mais euh, le corps électoral nous convoquait. oui corps électoral bobu nonou euh, sénégalais japonais jàpp les véritables enjeux. Mhm. ak li nga actuellement mom moy joué ci kiwom Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Al Maktoum dafa am un euh, acteur politique bu ñëwoon di ñaanlu ci moom. Mm-hmm. ne ko na ko ñaanal ndax dafa bëgg doon député. Mm-hmm. sëñ Cheikh ne ko yow fan nga far mu ne ko je suis neutre. Mm-hmm. sëñ Cheikh ne ko neutre contre qui mu ne ko contre Abdou Diouf. enfin ce qu'il voulait dire ce qu'il voulait faire comprendre à son interlocuteur c'est que neutre amul. parce que tu es contre Abdou Diouf donc tu es de l'opposition. Mm. donc neutre auto neutralité parfois euh, mooy li nga xamante ne.

qui euh, euh, euh, trajectoire politique parce que le PDS l'avait fait est-ce que le le lu dit pratiquement non mm-hmm. il a changé de fusil d'épaule mm. donc qu'il donc je pense que ni c'est un choix qu'il a fait que nous respectons mais que je considère que il va le regretter après mm-hmm. deuxième tour euh, non, mais Bougan, est-ce que. Tu... c'est une possibilité. Tout le monde sait. Mais je pense que Bougan peut-être, il faut que si secret euh, des, des, dieux. Parce que ça fait maintenant 15 jours, madame, dit ce journal La tribune. Nous, à chaque fois, nous euh, accepter le Sénégalais, qui est euh, deuxième tour. Madame, dit à chaque fois, nous sommes revenir. Je ne sais pas le pourquoi. Bon, ça veut dire que le journal n'est pas carrément neutre, alors. Si le journal reflète l'idéologie, la pensée de Bougan. Mm. Je ah, j'ai pas compris pourquoi vraiment lui titrer à chaque fois. donc, donc, son journal aussi essaie euh, de nous prolonger la mentalité, l'état d'esprit de Bougan Guédani. Là aussi, c'est catastrophique parce que c'est censé être des professionnels. Il ont waruñu am euh, luy luy tak ak euh, li Khalat. mais même même au cas où deuxième tour mm. est-ce que ça justifie yow nga toog di deuxième tour à quelle fin finalement. Mm. franchement. Euh, oui deuxième tour d'accord mais aussi premier tour c'est une lecture possible pour moi, ça ne sort pas de l'impossible mhm. avoir une élection qui se termine au premier tour mm. pour moi, c'est impossible de que Sénégal euh, peuple mature au-delà des mobilisations au-delà des manifestations au-delà des débats sur les médias et autres la masse euh, de la population très silencieuse mais quand on a fait le décisif on se demande mais attends nous sommes non mm. peuple Bini, mais le possible donc maintenant euh, comme comme moi, japonais na ne mbir deuxième tour la qui les Limouara li def deuxième tour pourquoi nous def parce que deuxième tour c'est c'est deux des 19 candidats là mm. mënul doon keneen mm. donc vous mënee choisir Ken ci euh, le deuxième tour pourquoi mënu ko def pour que son choix soit plus légitime pour que son combat euh, soit beaucoup plus euh, historiquement euh, légitime parce que euh, légitimité historique c'est ñu koy wax sur une cause. Alors, mhm. le alors deuxième tour ça ne peut pas se faire entre Macky et Ousmane Zonko. Mhm. ils ne sont pas candidats. ça ne peut être que les 19 candidats Les naka nga ne choix bi en amont ça frise des calculs politiques qui pour man euh, qui ne dit pas son nom. Oui. Euh, euh, euh mm-hmm. Bougan qui peine vraiment à se désister, euh, à se euh, décider ces élections présidentielles comme Moussa nous parcours politique Bougan. Mm-hmm. avec juste sa position yi nga depuis trois ans ko le régime du président Macky Sall pourquoi selon vous Bougan peine vraiment à choisir un candidat wa man dama dama am ne dafa comme Moussa di le train de l'histoire hmm. euh, ma kan kan nga leader yi wala ñu am représentativité hmm. fi ci Sénégal ñu élection bi dafa banque ay du ci hmm. bu ça pose problème déjà. Mhm. parce que ce fait qu'un acteur politique nga spectateur. te position bi mu position spectateur la. Mm. te bu position spectateur suba vous netali histoire du am lu mu ci parce que day taxone vous kat position spectateur la Moussa euh, ko gis nga bu PDS en 2019 les gi dem Conakry ñibisi ne mm. def bu kan euh, ku implicitement Macky Sall le dimbali. c'est vrai parce que euh, Macky Sall s'en est sorti avec 58 PDS mënoon na peser 8 Ce fait su mhm. fekkente ne 8 amana amna amaana am na doon demee mënoon deuxième tour. mais xamna na ne su né won tek tekaral Macky Sall lay dimbali. Bougane dafa toog mu né suma ma Macky Sall di xeexal ni damay wut yett ma dóor ba paré ma lu ngeen joté mhm. cela suppose que ne moom tout sauf Macky lay demee. Mhm. te ñëpp xam nañ ne élection bi ñaari pôle ñoo taxaw. Mm ñaari pôle ñoo ci gën a fës bokk mhm. léegi ñaari pôle yi gën a fës lan moo la tee nga dem ranger ci benn pôle bi d'autant plus que xamuñu jafe-jafe boo am ak pôle boobu mhm. loolu benn beneen problème boo xamante ni mën nañ ko tey constater parce que bu doon logique donc la ñuy demee dafay choisir les yeux fermés mhm. ne man kat damay dem jàppale ji ñi parce que kat comme niñ ko yàgg di waxee bu fekkente ne daay dafa am doo seet ban ndox nga koy fayee seen équation mooy dafa moom daf koy wax système bi lañ bëgg mu changer mm. ñu am nga ñu jàkkaarloo ak moom di xeex ak moom waaye waaye lan moo tax doo leen buux la ba ñu jàll même bu paree sax nga dem raxas loxo ba mu set nga ne man gouverner wu ma sama objectif buux leen ñu ñu génn la woon parce que gis nañ ko mu def ko ci élection boo xam ne bokkul mm-hmm. mu battre campagne bii lan moo tey ji lan moo dox ci diggante ba nangu ko mm-hmm. ma jàpp ne nag am na leen loo xam ne rax na ci biir muy mbirum ego ego mbirum ego mm-hmm. je pense que problème fondamental c'est un problème d'ego ok xam nga lu Bougane yeewi askan wi woowoon nañu ko ci ba mu génnee li mu doon kaas couleur yeewi askan wi. Mm. Euh, dañ ci dugal couleur bi couleur vert la couleur rouge la euh, lan moo tax nii ni ak ni ay détails yoo xamante ne pour man mais yeewi ñu fa nekk ñu est-ce que mënoon nañu dugal seen couleur ci biir kii bi. nga xool rek nga ne kon lii couleuru Pastef la ak couleur euh, taxawu kon man bokkuma parce que ba ñuy def yi def yi def yi. Mm-hmm. c'est-à-dire gis nga politique boo ci nekkee parfois il faut nga muus politique ruse la. faire des compromis. non D'accord, accord mën na ci bokk mais mousse, la. Mm. muus mooy lan nga mën a am lecture situation gis nga le bon politique c' est quelqu'un qui sait lire une situation. Mm. situation politique dañ koy lire. Mm-hmm. mais bu fekkente ne situation bi dafa taxaw yow nangu woo koo lire nga tiitan cee à carreau nga dem taxaw ne ne sa yow nekku si. du ma ci àddu du ma ci def dara ku neex waaye dama non seulement mi ngi disperser ay ay ay électorat de deux mi ngi perdre ñi nga xam ne mooy ay militants mm-hmm. parce que am na ñoom bu ñu demee du ñu dellu si bu ñu demee si vous ñu nit ki bulletin secret bi am bulletin ne donc c'est mon président. C'est vrai après nga non man si dama naa ma eh, tiens ma man ma dem ko ma ma ma parce que am responsabilité et puis euh, taxaw ne damay damay abstenir non non euh, fu ne fu ne pour man du du position courageuse. Mm déedéet parce que pour man courage politique li mu doon demaan nga taxaw nga choisir même booy tànn Amadou Ba nga ne Amadou Ba laay tànn bu la kenn doole nga ne kenn doole mais li mu mun na nangu ma ne deuxième tour comme quoi da nga bëgg a yóbbu nañu ne deuxième tour day am coûte que coûte. en tout cas tribune moom euh, seetlu naa ko ça fait maintenant 15 jours à chaque fois dañuy ñëw euh, sur cette question de du du deuxième tour. dañ ciy ñëw lu bëri. Euh, élection bi dafay dem deuxième tour. Karim Wade ak. Mm. Bougane Gueye hmm. euh, faiseur de roi wala nangam ak nangam toujours da ngay toujours genre gens ci sont ci biir ci biir ci mais finalement est-ce que Bougane sax euh, voilà euh, c'est un homme politique Amna a aussi si dëkk bi créé na emploi mais qu'est-ce que Bougane aussi pèse vraiment si li nga xam ne moo nekk espace politique parce qu'on a vu ñaari élection yi nga xam ne Bougane tenté bu dem à la présidentielle d'un koy sur des questions de parrainage mënaguñoo xam lu muy pesé parce que boo ko waxee day dem ci local mu ne j'ai tant de conseils j'ai tant de conseils ak nangam ak nangam te xam nañ ne tey jii bu fekkente ne Bamba Fall ci listam la demee ñëpp xam nañ Bamba Fall base à Médina mhm. c'est autre chose par rapport ak euh, bannièru gëm sa bopp mm. nga déggaat mu ne la am ay conseils gauche à droite tamit ñooñu lan la ñuy pesé boo leen détaché ci biir euh, gëm sa bopp mm. donc comme demagul élection ba léegi kenn xamagul poids électoral moo tax man da bokkoon si ñuy ñaan mhm. moom ak Karim Wade ñu dem élection ne serait-ce que may ñu ñu am idée wala ñu am benn opinion par rapport ak acteurs politiques yi lan la ñuy peser ci balance politique bi mm-hmm. et malheureusement conseil constitutionnel xañ nañu ko et bu ñu demoon bii paana dina am njëriñ parce que buñ ci génnee dafa doon permettre ñu nekk au complet mm-hmm. te bu ñu nekkee au complet xam nga élection buñ ci jógee amaana bu ñu duggee ci élection bi dinañ ci ñëw jox suñu lecture buñ ci jógee dafa am beneen gis-gis buñ jëm mm-hmm. te comme moom bokkul ba pare taxaw ci wet gi ne ku neex waaye bokk ku neex waaye demal voter ku la neex ça veut dire que moom il s'est auto exclu te man loolu mooy li ma si metti waroon na mën a ñëw mu tànn euh, fa nga xamante ne mooy camp anti système ba parce que nag il se de l' système kon boo waree tànn foofu nga war a tout à fait euh, tout à fait juste vous rappeler y a un plateau spécial euh, de veille euh, de campagne Nous, nañu wax ne fu campagne toll nii d' élection <laughs> quelques heures rek moo pour sénégalais yi avons fait dem foofu pour nous. a tànn rek président mu une présidentielle boo xam ne bëri woon aussi ay violence ba sax avec ce report quatre doomu aadama ñàkk c'est seen bakkee un processus électoral qui a été biaisé mu comme élection bi dafa am vraiment enjeu particulière pour enjeu particulier pour ne pas dire une touche particulière c'est ñuy si li cette nouvelle ère qui s'annonce vraiment si li nga xam euh, espace politique bi euh, bu Sénégal on va parler de cette alliance bi nga xam euh, commencer concrétiser entre ñi nek euh, parti démocratique du Sénégal bu maître euh, Abdoulaye Wade finalement euh, nous nañu wax carrément sëy c'est acté entre PDS ak ñi di way Pastef pour ne pas dire la coalition de président présidente. gis avons ñom ñu def une forte délégation ñu gisat maître Abdoulaye Wade nga xamné vraiment gëjoon nañ ko gis li nga xamné ne nek ci espace public bi Pa Moussa mu comme fum il euh, y a une nouvelle alliance euh, bi nga xamné ne euh, commencé di dessiner entre ñi nga xamné mo cette coalition Jomay président qui se dit waay anti système bi ak parti démocratique sénégalais boobule alliance lan lañ ci mëna jangat surtout pour élection présidentielle bi nga xamné dafa am rek li nga xamné mo nek enjeu particulier Pa Moussa voilà soxna Ndiaye avant ngay euh, kii nii dafa mel ni dama gis benn internet buy demandé à ma contacter. Euh, message yi ci messenger moom day bëri trop trop trop léegi na ma woo. je mhm. pense que c' est Ibrahima Ndiaye. bu ma woowee rek dinaa gis euh, dinaa mën a gis messenger wa alors la question bi nga posé dafa am solo. Mhm. parce que y' a trop d'amalgame ci circuit système. anti système et cetera. je reprécise surtout man ni ma ko xalaatee. Mhm. mooy système anti système tey ci élection yi foog ñu xool euh, les types d'élection mhm. pour euh, man bokk euh, parce que sama position xëy na day jaaxal ñu bari. Mhm. mën naa koy d'accord ci type d'élection bi te du ma ko d'accord ci type d'élection beneen mhm. parce que bu dee scrutin boo xamante ni ñu bari ngay fal loolu ay élection la. boobu pour man mélange yi dafa war a doon selon les idéologies les coalitions parce que euh, Paul Valéry Defay faral di wax euh, les coalitions politiques c'est la rencontre de deux arrière-pensées. Mm-hmm. alors euh, donc faut que té ku ci nekk ci arrière-pensée da nga len di joxe ndombo tànk soit da nga koy def député wala nga def ko maire etc. mais ci élection présidentielle par contre fofu du élection yu bari. ben élection la. Mm-hmm. ce ce ne sont pas des élections mais une élection. Mm-hmm. avec un candidat bu ñuy fal kooku la ñuy xol idéologie wam kan mo wara mëna xalat président Wald, PDS ne soutenir candidat soutenir candidat Jomai Faye Jomai Faye n'a pas de sa soutien. Mm. Lolo, nit ça n'a pas de sens C'est amul lolo, t'as taxawul ci dara. Euh, Moi, tax Biko Sonko euh, en 2019 j'étais pas d'accord avec lui. Mm. parce que le présidentiel, ne loolu euh, présidentielle bi définir la politique de la nation. Et pour nga mën définir, définir faut que la majorité des sénégalais votent. Mm. alors si la majorité des sénégalais votent, ils ñenn ñëw pour jàppale nga ne da ngay bañ jàppal boobu kon yow bëggoo définir la politique de la nation parce que ki ki la jàppale si faluñu ko moom dafa la jàppale pour ñu fal la yow yow la ñuy fal donc kon quel que soit les soutiens yi nga xamante ne le candidat Bassirou Diomaye Faye am na ko mm. loolu ça ne compromet pas son idéologie ça ne trahit pas sa vision moom vision ak idéologie ak doxalinam ñu ngi koy xam ñu ngi koy apprécier moment bi nga xamante ne sénégalais yi teg nañ ko à la magistrature suprême mm, mm. mu war a doxal alors tey jii nii euh, démb yaa ngi ma ko doon wax que ni woowoon euh, Karim effectivement Euh, l'information est vraie woo na ko ils ont discuté aussi euh, par rapport ak réew mi fi mu toll ak nangam mais man fi ma bëggoon a waxee mooy Diomaye Pastef lenn moom mën naa xam naa ko ci ñoom. Mm. quel que soit le soutien du duñ duñ la dig poste. doo ñëw tamit di exiger ay postes pour avoir un soutien loolu tamit foog gars yi comprendre ko ci doxalinu Pastef Ousmane Sonko en 2019 li taxoon soutien yi bariwul woon ci moom loolu la. Mhm. du la dig dara doo ko exiger dara. parce que loolu tamit boo ko defee da ngay nekk après euh, président mais boo xamante ne dafay mel ni dañ lay jël en otage dafay mel ni lobby yi dañ lay jël en otage maa la fal fii maa la nangam et cetera donc jox ma lii wala jox ma lee bu dee alliance yi ce n'est pas la rencontre comme dit Paul Valéry de deux arrières pensées wal dafa war a nekk rek la rencontre de l'intérêt exclusif du Sénégal ngay ñëw di soutenir nit parce que japp nga ne ki bu joté ci mbiri yi mën na doxal Sénégal ci ni mu waree it ngay euh, soutenir nit ki pour que euh, Sénégal mëna jëm ci kanam nga japp ne ki mën alors donc euh, ci ci ci walu bobu nonu idéologie ak yoyu fim mu toll ni ni ni, ki nga xamante ne ngay soutenir yow beaucoup nga dem adhérer ci idéologie Bob. ce n'est pas le contraire si le PDS soutient Diomaye PDS dafa apprécier mûrement ba xam ni. Diomaye mii moom mo gën alors PDS moom mo adhéré donc ci idéologie euh, Diomaye bon ça donne ça coupe court à ce qui parle de d'expérience nag ñoñu moom wara naa war nañ mën nopi nak nag fim tolli parce que seule coalition bu am ancien président moom mooy bu Diomaye kese et le plus expérimenté de la classe politique muy le patriarche président Wade moom mo dem soutenir Diomaye kon moom Diomaye bu ñu ko waxati waxu expérience même euh, kii sax est ancien président donc c'est la seule coalition qui a un ancien président donc ancien président Bob noonu avec l'expérience avec son parcours avec vécu avec trajectoire am bu toogee xalaat jàmbar ko ak euh, ñi nga xamante ne la Andal, ba gën Sénégal ce n'est pas Diomaye moom mo ne la keneen moo gën Diomaye dafa samp Pastef dafa samp pasteur dafa am candidat un am projet Ils ku ñew adhéré ci candidature bi adhéré ci projet bi mais yow ya adhéré dans son idéologie donc ils n'ont pas trahi leur idéologie ils n'ont pas trahi sen euh, philosophie ak sen état d'esprit. Pape Moussa dina ñëw si idéologie parce que man fu mu toll man euh, dama si lu ñu idéologie fii si euh, Sénégal Moustapha. Moustapha Moustapha mu mm-hmm. Mustapha. Mm-hmm. Euh, par rapport à euh, cette alliance entre le PDS et euh, ñi nga cette coalition et président pour ne pas dire le PASTEF ban jàngat nga ciy def am ñu carrément alliance de circonstances la ñeneen ni sax di wax li nga alliance contre nature. foofu laa bëggoon ñëw wax nga alliance de circonstances. là. oui je m'explique alliance de circonstances dans la mesure où.

bokkuñu ak ñeneen ñi nga xam sax am na yenn calculier yu nu mel ñoom dañoo taxaw xool jàngat mbir mi mhm. xam ne kii moo fi mieux placé pour mën leen fajal seen mer mhm. comme dañ jàpp ne leen metti Macky Sall moo leen ko teg ak Amadou Ba mhm. parce que Macky Sall moo fi nekk seen candidat ñaari bëgg bokk yi bokk ko moo tëj seen candidat ak yëpp ñu jàpp ne kon tey jii buñ ko xeexee ba mu génn fi tamit euh, d'ailleurs foofu lañ doon xaaree tamit Bougane Gueye dani. parce que loolu mooy logique PDS tey buñ bu and jugoon ànd ak Macky Sall ça veut dire que logique ñu si seen démarche loolu moo tax ma ne ande bi ñu ji ak euh, Pastef man damay dàq ne dañu dañu dañu dañoo gëm doctrine. wala dañu gëm Ousmane Sonko wala dañu gëm Diomaye gi defuñu ci benn. c'est vrai parti bi d'ailleurs namu mu dala fonctionner ba tey jii. Mhm. ba tey jii xool ba ba ñu war jël seen responsabilité seen i en 2019 euh, mais jëluñu ko. Mhm. lañu def c'est parce que dañu jappalé Macky Sall ci souf mhm. parce que bañ a tànn ñu tànnoon motax Macky Sall jàll premier tour. c'est vrai bi pa xam nañ ne tey jii kii day dem te Amadou Ba arrangé wu len contre nañ leen ñu ne nañ dem euh, placé wu ji ak ki nga xamante ne moo mieux placé mu jëlee fi ki au kii di ñëw ñoom dinañ ne contribuer nañ ci on a été une fois faiseur de roi. c'est vrai ñëw nañ ak ñun teg ko ci nguur gi. Mm-hmm. léegi bu ñu ko fi tegee beneen mbir mën na amaat. Mm-hmm. lum ñu jox ñu jël. Mm-hmm. te PDS ñëpp xam nañ ne yàgg na ci opposition bi ak loolu mën a waxal yàgg na ci opposition bi dund na ci lu nekk. lu ñu jox ñu jël bokkuñu dina leen permettre ñu mën a dundaa tuuti tuuti jógaat tuuti taxawaat tuuti au moins loolu. Ben Ben mbir la benen mbir bi ci am tamit moy PDS parti la bo xamantene tay ji depuis 1978 ba élection présidentielle bu ñëw PDS bokku na ci mm. excepté ñaari ñu mujj a def ni PDS bokul te yooyu avec un même candidat c'était maître Abdoulaye Wade. c'est vrai Abdoulaye Wade kessé Abdoulaye Wade mo dem 78 mo dem 83 euh, mo dem 88. Mm-hmm. mo dem 93 mo dem 2000 mo dem 2007. 2019 amuñu candidat 2020 euh, 2024 euh, amuñu candidat yépp Abdoulaye Wade la mhm. parti bi dañu dem ba min benn nit mhm. benn nit lañ xam donc mu doon benn bien boo xam ne nit la pa bi mu ba war dem ñoom leen wax mhm. taw ne kon euh, bokk dem bokk ji parce que suñu déjà bokkul élection bokkaatoo élection te surtout élection présidentielle nga xam ne mbiri benn nit la boo ci bokkul tu es si touche bi ngay taxaw c'est vrai ouais. Euh, Moussa Moussa Moustapha balaa mooy jóge si yow euh, par rapport à euh, cette nouvelle alliance on a vu certes ñi nga xam ne la machine du parti démocratique sénégalais ñoom adhéré nañ mais dafa mel ni comme parti bi dafa exploser, parce que yaa na ñoo xam ne ñoom nanguwun si alliance pour dem neen réfugié wu si yenn ñeneen ñi aussi est-ce que cette nouvelle alliance aussi du exploser rek lu desoon si parti démocratique sénégalais. Oui, xam nga parti bi nee avant avant waa PDS di wax sax am na ñu bëri ñoo xam ne demoon nañ ci jomaay am na ñoom ñoo jiitu jomaay te dem nañ ba teg seen i fi ñu toll nii mhm. am na ñoom <laughs> ah a uh-huh. na ñoo xam ne dem nañ bu yàgg mhm. depuis euh, ba ñu recalé calé euh, Karim mhm. euh, balaa Cour suprême doon wax sax ñoom jël nañ ay contact xool fu ñuy dem ba bokki ji fa loolu am na mais am na li ñu naan li naan dafa attention dafa am tamit benn benn manipulation bu garaaw bu am ci lii xam nga PDS ñi fa des fi ñu toll nii ña fa des fi ñu toll nii mooy ñi nga xam ne ay karimiste lañ ay waddiste lañ ñooñu mooy ñi toog naan man Ousmane Sonko laa gëm bu ne ma woon toogal fii ba suba ma toog fii ba suba ñooñu noonu lañ mel tamit les inconditionnels waaw mooy mooy inconditionnel ñooñu pour man sax ay fanatique lañ benn moment bi ñoom noonu lañ mel ci Karim Wade ak euh, Abdoulaye Wade ñooñu bu ñu leen noon votel leen tey jii professeur Daouda Ndiaye professeur Daouda Ndiaye la ñuy votel mm-hmm. dañoo gëm mm-hmm. te ak lépp loo mën a wax a PDS le PDS a un appareil mm-hmm. foo dem département boo dem ba fekk kenn koo xam ne PDS day représenté te kooku bu jëfee ndigal bi amaana am na mu leen mën a jural lu mu mën a jural euh, waa Jomaay président moo tax ma ne ñi nga xam ne dañuy wax naan non ndigal bi dañoo xaaju ni c'est vrai. Mm-hmm. ndigal wala euh, injonction wala décision mënoo koo jël ñëpp topp ko à loolu mënut a am. Mm-hmm. mais ku xam euh, parti bi ni mu bindoo ni dina am ñu jaar ci wet gi mais je pense que masse bi ñi ci ëpp solo. Euh, fi Abdoulaye Wade joxoñ la ñuy la ñuy fi Karim Wade joxoñ ñu ànd fa. Mm-hmm. Euh, merci beaucoup euh amna aussi benen constat bo xamné def nañ ko si euh, présidentiel bi rawatina si campagne électorale bi les gars moo nekk ñi nga xamné mo nek les candidats euh indépendants ñi nga xamné ne amul benn appareil d'état bi wala wun si benn parti politique mu melni comme Pa Moussa fi si Sénégal logique bi depuis les indépendants après les indépendances euh, Bo amul li nga xamné ne nek parti politique bu solide wala sax appareil bi euh, tax euh, ñuy wax carrément un appareil politique pour nga mëna vraiment se frayer le chemin si walum politique bi da fay nek lo xamné day qu'est-ce qui justifie cela <coughs> avant, avant d'en arriver là, par rapport à PRS, à son choix, oui parce que Pérez a allié ay alliés naturels am yoo xamante ay mm. depuis 2012 jusqu'à présent il est allié au Pérez, mm. Pérez Mamadou Lamine Diallo. Mm-hmm. Euh, il y a le doyen Abibsi, mm. qui est le dernier directeur de campagne du président Ward, euh, même s'il n'est pas candidat wala s'il est candidat autre autre forme de candidature mais ce n'est pas pour rien que nous avons dem rejoindre Diomaye mais il faut aussi euh, noter par Moussa que euh, ànd ak euh, Diomaye est bénéfique pour le parti démocratique sénégalais Justement. parce que fu mu survie la di jouer hein. c'est ça c'est ça il faut que la la c'est-à-dire uh-huh. le parti démocratique sénégalais joue sa survie politique voilà parce que xamna né ne mu raté wat coche là mm. c'est c'est c'est fini pour donc il faut que nous jouer ben ben rôle mais dans un passé très récent mm. le PDS plaidait pour que élection bi bu am mm-hmm alors pas am logique pas am cohérence bu Nous demoon ki ñu une corruption mm. ñu dem ne kon kii la ñuy àndal tamit ce n'est pas cohérent donc donc le PDS était un peu contraint à, aller vers euh, notamment pour sa survie et pour mm. sa cohérence mm. alors euh, nous ñu choisir euh, loolu Nous li tax euh, Moustapha nous avons doon souligner ñoom ñoo fekk pour la euh, pour question bi que ni alliance contre nature de circonstances de mais circonstance la bo xamantene ne n'a pas bougé il n'a pas bougé parce que damay bañ ñu bëgg a euh, andiwaat mbir yi ay non euh, système ak anti système ñoo coaliser. du ce n'est pas ça du tout Diomaye mi ngi fi mu taxawoon mi ngi fi mi dem té bu ko euh, PIT c'est lui qui définit la politique de la nation. Mais il faut rappeler aussi que c'est Jomai qui est allé vers eux aussi, pas Moussa. Non il faut le voir. la wax que la survie du PDS bien là mais aussi la cohérence du PDS. Mm. PDS n'y woo nañ ko. Mm. tout le monde Amadou Ba euh, Déthié de Mamadou Lamine Diallo ku ci nekk jëm na outil soutien au PDS. Mm. mais PDS a porté son choix sur Diomaye. c'est ça la réalité Diomaye woo euh, wa PDS. wa PDS wo Diomaye quel que soit Alpha Diomaye il a besoin de la majorité des Sénégalais pour définir la politique de la nation donc quand fait pour vous mener a jëli ji carte da koy parce que c'est nga naan pas tamit nefa mm. Balanga doxal anti système mais il faut que nga am la majorité des sénégalais. Mm. donc do xeeb ben carte. personne ne peut reprocher à Diomaye d'appeler euh, le président Wade ou Karim Wade ken mënu ko ko reprocher parce que lui il a besoin de la majorité pour doxal li nga la futile euh, une logique anti-système mm. alors donc kon Ben pour en revenir à ta question xam nga man dama gëm mm-hmm. une élection présidentielle aussi bon appareil politique d'accord mais pour moi, c'est le rendez-vous d'un homme avec le peuple Bon appareil euh, mon moo solide pour le parti socialiste ci Sénégal ci le nii nii la appareil Bon ban appareil pour le bu parti démocratique sénégalais appareil kese la bul bul le président Macky Sall bi euh, au pouvoir en 2012 il avait son alliance pour la République qui n'avait pas trois ans d'existence. Nous portait euh, au pinacle le parti socialiste Benno Actanor, dégager euh, l'AFP euh, Benno Sénégal gagner le parti démocratique sénégalais. Mais donc il n'était pas novice aussi. Hein? je sais c'est l'appareil euh, man ne mais pas l'appareil parce que pour un appareil pour appareil rek. Hmm. Macky Sall ne serait pas là où il est parce que son appareil n'avait pas trois ans d'existence Si Afrique il faut le traverser du désert la longue marche de Mao pour arriver au pouvoir. Mm. Alpha Condé 40 euh, mm. ans d'opposition. président Ouad, 26 ans d'opposition. Etienne Tshisekedi euh, Ould jusqu'à Centrafrique Moussou Gisken, kenn moins de 20 ans accès au pouvoir président Macky Sall trois ans la def c'est une exception. Mm-hmm. en Afrique donc Mirmi, ce n'est pas une question d'appareil mais d'hommes. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est le rendez-vous d'un homme avec le peuple. Ce n'est pas le rendez-vous euh, d'une formation politique. Ce n'est pas le rendez-vous d'un parti politique. Pour un parti politique rek la Macky Sall du au pouvoir. mais je veux dire que certes Makissal, euh, mais il était euh, dans un parti. justement occupé à une fonction. mais comme le professeur Daouda Ndiaye Anta Babacar Pape Djibril Fall. C'est des gens qui ont ne amuñ ce cursus ou à dire que c'est une relativité sur le plan mm. populaire mm-hmm. Mm-hmm. n'est pas tributaire de leur manque d'appareil. Fofu la que bëgg ah oui oui bien sûr Khalifa Sall il était dans l'appareil du parti socialiste. mais parti socialiste comme tous les autres partis classiques. fu mais appareil là, euh, appareil comment comment nañ euh, loof. ne la kon donc appareil bi signifie le temps, parce que appareil yi yow wax nga l'offre. Mm. donc les appareils ne signifient plus grand chose. Mm. alors donc ñan a yor appareil yi Aminata Mbengue ñan appareil yi Amadou Ba appareil yi euh, moussa Niasse lan lañu politiquement et concrètement lan lañu presque dara alors donc presque dara boobu noonu nag moo tax ne man jàpp naa ne mbir mi mbirum nit la. Hmm. mbirum nit la d' abord euh, appareil bi ñuy bi ñuy bi ñuy euh, candidat. Hmm. il n'avait pas d'appareil, l'appareil était dissout. Euh, euh, l'appareil hein? de dissous, mais, euh, mais, mais, mais cet appareil, il était justement, justement, bel bien là. Hein. Donc, je, je, je dis que ni, oui. bobu non, du dara, appareil bobu non, du dara, deug deug deug l'adhésion des Sénégalais sur euh, l'idéologie Ousmane Sonko mom mo waral lolu. Mais pas l'appareil parce que ñom dañoo dissoudre appareil bi gis appareil bi gëna bari doole. Hmm. Ex Pastef ëpp doole Pastef kon kay mbir mi du won Pastef ak leneen mbir mi du won mbirum appareil bi mbir mi du won mbirum récépissé bi. ce n'était pas l'affaire mais cet appareil qui était là. oui oui mais c'est la personne de Ousmane Sonko qui a séduit. ku foog ne li xew diggante mars 2021 ba tay jii ni Pastef la. ils sont là depuis 2015 non le Pastef 14 oui. 2014 oui mais ku foog ne ku foog ne effervescence bi ni Pastef la jum nga te boo xoolee ñi gëna taxaw deug deug deug ils ne sont même pas de l'appareil euh, professeur Cheikh Oumar Diagne Karim Khouroum, Khak, euh, ñeneen ak ñeneen ñu bari ñoo xamante c'est-à-dire d'illustres personnalités yu taxaw. Mm. soutenir Ousmane Sonko soutenir la démocratie euh, parce que c'est un peu la même chose soutenir la justice mais bokkuñu sax ci appareil ba sénégalais yu ils ne s'identifient même pas dans les appareils politiques jëlal appareil politique yépp ñu génneel les seen carte de membre ils ne feront pas 2 de la population. certes mais faut faciliter vraiment les choses. faciliter wul dara. si si bu doon day xam nga bu doon day faciliter kon dana faciliter euh, Tanor donne le gën faciliter Moussa Fagnas donne le gën faciliter à président Wade mais il faut il faut aussi reconnaître papa Moussa eux ils ont déjà fait leur époque. mais mais Macky Sall tamit defoon na époque. il ne surgissait pas du néant non man xam nga gëmuma euh, il a fait trois ans d'expérience c'est l'appareil qui a trois ans d'existence mais Macky Sall n'avait pas n'avait pas trois ans d'expérience politique à côté à côté de lui da nga gis Badara Cissé da gis Cissé Lo Mbaye euh, ñeneen près de 100 ans d'expérience politique hmm. or l'appareil n'avait pas trois ans d'existence donc l'appareil ne jouait pas un grand rôle ci élection présidentielle c'est le rendez-vous d'un homme du appareil. appareil. appareil. c'est l'homme. ce n'est pas le parti mais c'est l'homme parce que absence d'appareil ko mm. au pouvoir alors donc kon euh, ba nini, nii comme euh, sabar bu boutasse. Mm-hmm. armée mexicaine la lu est wax. Mm. Amoul structuration amoul dara Babacar Justin Ndiaye day faral di wax c'est un immeuble sans rez-de-chaussée. Mm. un immeuble sans rez-de-chaussée donc ça veut dire que ce n'est pas un appareil. <laughs> <laughs> non non il veut dire que les fondements defuñu ko rek mm-hmm. au pouvoir nous, tax nous, peine à avoir une solidarité de groupe nous uh-huh. peine à avoir ben compagnonnage parce que malgré le la ko doon wax opposition de gën a les liens une fois au pouvoir président Wade a fait 26 ans mais d'abord le premier conseil des ministres du président Wade et le dernier uh-huh. <laughs> nga ñi merci beaucoup <laughs> Pape <laughs> Mustapha, mhm. Mustapha, moi je parle d'appareil euh, qui euh, pas Moussa parle d'homme Mon jàpp euh, Mbirmi, bien vrai qu'il a cité ñi nga le parti démocratique sénégalais le le PS ak AFP le constat est que malheureusement ces partis classiques de famille comme comme cette époque de Ginao. le constat est que ñi nga que ces candidats qui se indépendants ils ont vraiment du mal à se frayer un chemin si li nga xam ne présidentiel euh, si présidentiel euh, man mané apparaît, appareil euh, pas Moussa ne peut-être personne bi sa présence si li nga xam ne c'est espace public bi rawatina taxawaayam si langum politique bi pour yow appareil bille ou bien la personne waaw mais xam nga dafa dafa am changement bo xamné d'époque buñu commencé di dund. jamono mo commencé di changer. Mhm. buñ ko mëne tuddee noonu. Mhm. Euh, parce que buñ njëkk ba comme ni mu ko waxé ni Afrique a toujours eu des hommes forts. manam mhm. ay ay ay ay ay chefs de parti yo xamante euh, vraiment parti bi si ñoom lay tourner mais toujours dañu dañu notion de parti. dañ ko joxone doole bo xamante tay ji lepp ci parti bi lay démarrer. Hmm. bo xolé tay ji structuration buñ njëkk ba ay parti socialiste dañ lay wax ay coordination PDS boo fa demee ñu lay ñu lay am na structuré nañ ko ba ci ba ci ba ci commune bi gën a ndaw am na nu ñu ko séddalee. mais c'était le soubassement de la République aussi. Hein? non mais pas parti. waaw ñoom ñoom ñoom dañ jàppoon ne daal. homme politique bi sans son parti zéro la. il n'existe pas. te loolu biñ ko tamit dafa am ci lu ñu sukkandiku. Mm-hmm. parce que dañu gis ne euh, candidat indépendant yi ñu mës a am yëpp. Mm-hmm kenn du si am sax 1 pour cent. Mm. zéro virgule am bu ñu demee je pense que ben Ibrahim Fall moo ci am 1 ñene cent. Mm. ñeneen ñi ñëw am zéro virgule am. Mm. ñu lolu yag leen gëmloo ne l'homme politique sans un parti politique égale zéro. Mm-hmm. loolu moo tax nag ñu bëri yàggoon ne foog ñu adossé wu ben parti. léegi lu mu am damay dundal parti bi dama koy renforcer damay té parti bi. Mm-hmm. pour mëna am si si si si lu ma bu baaxa a baax mais avec euh, Ousmane Sonko dafa am benen jàngat bu ci am. c'est vrai parti amna solo mun na la may doole mais dafa ñëw benn période boo xamante ne dafa ñëw tombel ñi euh, ñi maar ci benn situation bi fi nekkoon mooy tout ce qui est social tout ce qui est libéral tout ce qui est marxiste affaire yooyu mm-hmm. gars yi gars gars yi gars yi gars yi bëggatuñ ko dégg mm-hmm. dañu bëgg gis deneen lu bees mm-hmm. dañu am envie am changement dañu am envie gis deneen moom mu ñëw jaayu leen socialiste jaayu leen libéral jaayu leen dara mu jaay leen patriotisme mm. je pense que bi mu ko jaayee moment bi mu koy jaay ñële ñële maar wala askan wi jeunesse bi maar ci ñi fi nekkoon ñu ne bon tiens kii indi discours bu bees wan ñu parcours mu doon parcours bees ci homme politique mais pourquoi pas tenter ak ñu essayer ak moom dara bi ñu jéemee ñu gis ne côté bële affaire baa ngi jël forme ñu commencé di ko attaque gars yi jug sol sotle ko ñu braque projecteur yi ci moom pof il est devenu un monstre politique mm-hmm. noonu la demee parce que dafa ñëw au moment bi nga xamante ne gars yi soxla woon nañ changement mm-hmm. soxla ko parce que mënoo comprendre Abdoulaye Wade parti mi ngi judd 1974 1978 mhm. ñu def euh, multipartisme limité mhm. def ko ak courant libéral bi nga xamantene ne euh, Abdoulaye Wade moko jot ak benen courant marxiste bi nga xamantene ñom ñoom Diop la mhm. ak courant bi nga xamantene socialiste la ñom Ousmane ñom euh, Léopold Sédar Senghor la ak conservateur bi nga xamantene ne Lamine Gueye moko joxone Boubacar Gueye donc loolu loo ciy comprendre dañ ci comprendre que ni kon loolu yàgg na fi ñëpp gëm ko gëm noo ne booy teg parti foog nga gëm ne man courant bi laa bokk kii fële la bokk kii fële la bokk mais ñoom ñëw ñu indi leneen léegi lu bees loolu nag ñu indi dafa ray mbiri parti yi tey jii hmm. su ma nee la Abdourahmane Diouf ban ban ban kii lay réclamé loo may wax Bougane ban lay réclamé loo may wax ñoom ñëpp dañ naan ñun ay patriote lañ suñu dëkk lañ gëm lii lañ gëm te man pour man loolu benn parti la moom dañ koy tëj ci histoire histoire histoire histoire Euh, parti politique ak yenn gëm et c'est est de façon générale hein mm-hmm. yemul Sénégal kessé mais bo xolé toujours tendance bi nga xamantene ne ñoy ñooy ci patriotisme ñoom ñoy woote ci nationalisme ñoom lañ gëna a commencé di jox cër. xam nga dañu nekk ci dëkk yoo xam dañu dañoo ko lu xew Sénégal rek dafay commencé di feeñ ci yeneen dëkk yi ndànk ndànk ndànk ndànk dafay def tache d'huile ba ñëpp daal di gis seen bopp et on a vu que mi ngi ci yeneen dëkk yi dëkk yu bëri ñooñu ñoo commencé nekk am benn montée en puissance boo xamante ne doctrine yi jiitu woon dañoo nekk benn fi ñu toll dañoo nekk en faillite ñoom ñëpp ñu ngi dem parce que nag dañoo def seen temps mm. renouvellement il faut que mu am te renouvellement bobu di am fay and ak renouvellement générationnel bo mm. xamante mom moom lañ nekk di di di gis ni jamono ji mom lay nek euh, di euh, dundu euh, jamono ji merci les gars ñu avancer wat ci benen constat par rapport ak cette élection pour la première fois je pense dans l'histoire politique du Sénégal ñu am élection bo xamné le président sortant bokul ci li nga xamné mo nek ci élection yi ñu gisat ci aussi benen format les leaders sax mun n'est carrément euh, beaucoup c'est un euh, c'est un combat par procuration Lolo ban enjeu aussi le monde a apporter si euh, dimanche bi par rapport à l'absence de ces leaders mu mel comme leur binôme ou tous ces élections bi bon c'est d'une part un mécanisme interne, c'est-à-dire mm. normal, que le président ne pouvait pas être candidat parce que euh, lui-même a dit avoir verrouillé la constitution, ba mm. nous donne candidat D'un ba ci il a son de manière autoritaire illégale anticonstitutionnelle d'éliminer un candidat mm. Ousmane Sonko c'est aussi euh, il ne faut pas que l'on soit amnésique hein. mm. Ousmane Sonko jouissait de tous ses droits pour être candidat. Mm. et il devrait être candidat d'ailleurs il vient de s'en rendre compte. Mm-hmm. c'est la première fois que je dis urgence urgence Macky Sall Tuduna pour dire qu'il devrait être candidat il devrait le dire depuis très longtemps. Mm. et que arrêter ce carnage politico-judiciaire contre Ousmane Sonko euh, on aurait de très belles élections très belles élections Bon xamante déjà duñ fi nekk tout sauf Macky mm. non euh, tout sauf nangam libéré Diomaye euh, Sonko dafa war a beaucoup, tous ces discours là nga xamante ne euh, foog euh, mois bii rek nga la amut mais de 2021 ba ba ba ba 2024 nous ngi woon ci débat boobu noonu. Mm-hmm. te loolu je pense que ni moment yooyu noonu yëpp nous nañ koo consacrer ci wax ci Sénégal ci offre de projet de société mm-hmm. ñuy def des débats techniques mm-hmm. parce que quoi que l'on puisse reprocher à Ousmane Sonko c'est ce qu'il avait réussi en 2019 en 2019 Ousmane Sonko a fait un espace politique pour a un ay coup des la débat de personne la débat de bas étage a eu des livre Tech Vision tu vois en 2024 beaucoup ont écrit des livres d'accord c'est très bien nous, hein, mën de copier de jël référence c'est une très bonne chose mais le mérite appartient à celui qui commence même si le suivant fait mieux alors mu euh, livre vision pour un Sénégal nouveau dem place de l'obélisque où ay journalistes sénégalais il a imposé un débat technique mm. Alors malheureusement, après ces élections, au lieu de le répondre techniquement, on l'a répondu euh, vraiment de manière euh, bizarre et ridicule. Alors, l'élection, mom motax élection bi là nous avons am ci débat amuñu ko. Mhm. Euh, parce que euh, c'est une première euh, au Sénégal que les président bi day dem et que nous, les il serait un peu voilà à équidistant des formations politiques et tu viens de dire procuration. donc lui a donné procuration à Amadouba. Sonko a donné procuration ah. à, à, Et que l'affaire s'est retournée vers une bipolarisation. Mais bon, voilà, il y a eu de la matière. Même même candidat recalé il j'adore la démocratie de concordance du docteur Abdourahmane Diouf. Mm. ah oui c'est-à-dire mesurer structurer des solutions aux vrais problèmes yi nekk ci Sénégal loolu nag buñ buñ buñ maintenir on la fait bon euh, aussi il faut souligner que euh, son invalidation était abusive aussi parce que andi sa parrainage ñu jëlal la ci yokkal la ci ay A ak ay E euh, y a de quoi dire sur ci logiciel boobu j'espère que les problèmes logiciel bi du doon problème fichier bi mais ak nu mu mënti demee waroon nañoo am moment boo xamante ne dinañ am dëgg-dëgg Sénégal ay élections yoo xamante du doon comme 2000 tout sauf Diouf comme 2012 tout sauf wad, mais dina doon euh, tout pour l'intérêt du Sénégal malheureusement euh, demuñ noonu day euh, day tax te enjeu bu suba bi tamit loolu la. Mhm. muy la participation des Sénégalais dans ces élections là. Mm. ah oui parce que taux de participation yi bon présidentiel, moo doon ëpp bii jàpp on aura un taux de participation si sama xalaat mën naa juum record mais ah aussi oui euh, mais tout le temps sachant que ni masse bi nga xamantene day tok du voter rek rek rek meun na fal président. Mhm. donc lolo lolo mom motax tax diou day jàll premier tour diou day ñaar ñi nooy dem second tour nangam yoy noonu yëpp c'est à prendre avec des pincettes dang koy wax rek ci sa njort bu rafet mais Sénégal ñi tok té duñ voter ñooñu rek rek rek rek buñ ñu voter dañuy fal président à mhm. donc euh, loolu mom mo waral euh, tay malheureusement li fi xew ci ci ci ci ci carnage li fi xew ci ay conflits politico judiciaires ak ay débats yu yu yu ñu ñàkk solo. Mm. Euh, tax na ba euh, li ngay convoqué noonu mooy ñu amoon élection boo xamante ne ce serait à la hauteur des attentes des sénégalais malheureusement euh, du fi am parce que tamit ku amul yaay mooy namp maam. Mm-hmm. et tu as parlé de procuration. oui alors procuration dafay fekk ne plan A ba amou newu fi. Mm-hmm. alors foofu rek rek rek rek ça na hein, euh, volonté sénégalais euh, c'est pourquoi je disais que euh, ces élections là sans Ousmane Sonko sélection l'élection donne règlement pour donne. képp ñi nga xamante ne ànd le candidat Bassirou Diomaye Faye qui sont nombreux qui peuvent élire un président dès le premier tour peut-être mais nous avons ñëpp da ngay choix prioritaire même Diomaye Faye lui-même. Mm. son choix c'est Ousmane Sonko. Mhm. alors donc kon nous avons dañoo sappe choix am dañoo violer droit am parce que moom kii la bëggoon mu jiite mhm. sénégalais bu nekk nag ci élection am nga sañ-sañu sa aspiration sa volonté nous may la et donc kon ñëpp ñi nga xamante ne suba voté Bassirou Diomaye Faye futur 50 plus 1 quand nous kon nañu nous ne ñooñu noonu ñëpp violer droit parce que ki ñu bëggoon de manière prioritaire c'était Ousmane Sonko. Mhm. alors y a un responsable que bu may euh, souligner que ni effectivement nous avons nañ Karim mais ce n'est pas pour dire que ni nous ñu wala euh, dinañ la jox nangam bon ma je n'ai pas je n'ai pas dit ça sax mais euh, comme que daf ko doon souligner rek ma jallalel koko biñ doon wax euh, Diomaye ak Karim c'était sur des questions de principe l'état de droit la démocratie Sénégal fan lañ ko bëgg a etc et cetera et cetera. neen Karim c'était pas pour l'un pour ne ko kay jappalé ñu wala pour proposer ko quoi que ce soit. mais loolu est-ce que xel mën na ko nangu. Euh, cette élection bo boo koy politicien c'est pour mu jappalé la. C'est légitime. waaw c' est légitime jàpp xam nga. Euh, dafa hein. dafa am dafa euh, am ben responsable euh, politique Touba Serigne Cheikh Abdou Bara Dolly. Mm. qui soutient Amadou Ba. bon naturellement ñoom comme ni ñu woowee Karim woowuñ Cheikh Abdou. Mm. wax ak moom moom am na relation ak Sonko. Mm. mais amul boobu relation ak Joomaay. Joomaay demul ci moom te Amadou Ba ñëw na ci wax ko ay projet wax ko li mu yéene ci Touba. Mm. Euh, ak moom bon je suppose que ni les victoires de l'opposition à Touba joué na ci rôle. Mm. donc mu xool ne ah comme que ñii seet si wuñu ma te kii seet si na ma wax na ma loo xamante ne jàpp naa ne bu ko defee jëriñ la ci sama askan. Mm. ma jàppale ko donc kon effectivement euh, ce n'est pas un reproche. que je fais euh, ku woo Karim wala ku woo keneen parce que ku bëgg ku la jàppale tamit di nga woote. alors donc euh, pour man woo Karim ñàkk woo xam nga lan mooy problème bi mooy Sénégal kenn du ko pàccoo. Ah, te te te te yenn coalition yi effectivement dina am après way euh, ñoo àndoon xeex nangam jox ñu nangam loolu amu fi de déedéet kuy xeex Sénégal ngay xeexal. Mm-hmm. waaw ku boo jàppalee ki bi euh, diw da ngay jëm ne kii nga jàppale c'est pour l'intérêt supérieur te d'ailleurs sax. politiciens sénégalais c'est un patriotisme mais raw <laughs> parce que man gëm ba man man gëm. Mm. am sax. Mm. waxul kenn la parce que après da ngay quatre otage même système mm. et puis euh, Sénégal bu développé di donc euh, foofu la d'accord avec les libéraux seen théorie boobu rek laa d'accord c'est-à-dire euh, ngay xeex pour euh, l'individualisme bu ku nekk amee sa intérêt personnel ensemble ça fait l'intérêt général. c'est vrai alors donc au Sénégal doxee ñu ñëpp la doxal non. Mhm. alors donc kon yow li ngay xalaat ne joomaay boo gañee jox ma nangam mais joomaay boo gañee defaral Sénégal man dinaa am par force. Mhm. parce que Sénégal bu doxee ci na mu war a doxee méritocratie ñëw. Mhm. dëkk bi tegu ci yoon. l'économie marche mais attends donc yooyu yëpp ci fànn bu nekk. Ah, mhm. même les serrures euh, vont vont danser de joie parce qu'il y aura l'autosuffisance en cere. <laughs> d'après Diomaye d'après Diomaye. les serrures, il les Saloum Saloum. <laughs> autosuffisance entière. <laughs> waaw Saloum Saloum ñoom tamit dañoo bëgg cere macha allah euh, Moustapha mhm. euh, par rapport ak euh, ñi nga xam ne moo nekk cette particularité bi nga xam ne élection présidentielle bi am na ko aussi c'est absence leader yi si li nga xam ne moo nekk si course à la présidentielle bi que Pa Moussa mu ngi koy wax nee na bu sax cette grande masse silencieuse bi voté rek mun na élire président si li nga xam ne moo nekk premier tour est-ce que tamit cette absence de leader mënul tax mënul décourager aussi euh, ma silencieuse bobu comme ni ñu koy gisee à chaque fois rek euh, ñu euh, abstenir comme parce que de élections yi passé aussi on a vu on avait vu cette forte ce fort ce fort ce fort ce fort taux d'abstention mhm. mais nañ nañu moytu rek ñi bokk comme ni mu mhm. ko waxee léegi ñëpp voter jeendoo parce que man ce matin amna na ku expliquer mu boy booy génn nañ dem di ukat boy ñëpp dem nañ mhm. voter ji nga romb yenn gaar yi dafay fees dell ñëpp ni am. Mhm. pour dem voter je pense que annoncé. ça aussi c'est un constat. Euh, ñi gis nañ voter pour parce que di laaj Macky Sall am la nañ ko laaj kon leen ko et dama évaluer taux de participation di ko wax am idée ci mhm. parce que élection Abdoulaye Wade euh, premier tour.

bu jógee benn jóg bi rek mën na mën na am lu mu junj euh, par rapport ak li nga xamante ne mooy am man am naa ci yaakaar ni euh, nit ñi dinañ génn vote ji parce que boo gisee ni mu demee mhm. euh, ni ñu ko yàgg laaj ak ni ko xiifee mhm. je pense que dinañ ko traduire ci li nga xamante ne mooy suba bu ñu bu ñu bu ñu ñu demee ci urne yi mais beneen mbir tey jii li am nii am nañu nii mais Macky Sall moo tooñ moo tooñ askanu Sénégal moo tooñ ñu bëri sax si askanu Sénégal. la wax carte gi. non moo lëbëjee carte gi. Mhm. est-ce que yaakaar nga tey jii États-Unis ñu war a dem élection nga toog ñu ne camp démocrate kii mooy seen seen seen seen candidat mënut a bokk parce que lii moo tax wala camp républicain ki lii moo tax kii mënul bokk. Mm, lu leer moo koy mais xam nañ ne ñaar ñi ñooy jëmmal donte am na yeneen candidat mais ñaar ñi ñoo koy jëmmal. Mhm. gis nga Ousmane Sonko am taxawaay bu mu am mais yéen ngeen taxaw des mois avant l'élection naan kii du bokk mhm. ku bokk si moom du bokk mais ce ngeen di ko dëkkal nopp nit démocratie bu nekk am des milliers et des milliers de Sénégalais yoo xam ne ñoom kooku lañ jox seen xol ne kii lañ bëgg mu jiite ñu mm. yéen tegoo leen ko fen parce que waa ji neexuñu parce que bëgguñu ko parce que parce que parce que ngeen ne leen hee eh, kii ngeen bëgg nii du bokk ci élection yi mm. ngeen def seen ay mbir lan waral DGE joxe fiche def ay à dire dañu dem ba dañu ridicule après mm. yu kenn xamul woon caisse de dépôt et consignation yóbbu xaalis ñu ñu ne la nekkoo ci liste bi duñ téye sa xaalis mais gis nga yooyu yëpp ñu def ko fi après moom président mu toogaat naa ñu bu ñu ma déglu woon Karim Wade dina bokk Ousmane Sonko dina bokk kon nan lañ ko doon dégloo. franchement te moom lii tax Ousmane Sonko bokk loxo ma ngi ci biir. Mm, mm, mm. dossier Mame Mbaye Niang bi tax niñ ko accéléré tey ji parce que boo xam nañu yëpp jeex na. Mm-hmm. dossier bi moo fi sës contumace ba daanu na ci ndox ma ñu ne accéléré leen mbir mi gaaw. ñu accéléré ko. ba Ousmane Sonko demee ba lépp man ñu ne ko noonu am nga fi ab condamnation kon léegi usu out mm. kon loolu ñoom la ci loo xamante ne sénégalais yi ñoo ko moom sénégalais am nañ droit njàpp bitee moo leen doy ñu dinañ njàpp mii nañuy encadré mu dem mm. mais yow miy jiite amoo droit xool Pape Moussa mi ne bokk ci élection yi amoo ci droit parce que yow ni nga amee droit bokk noonu la sénégalais amee droit ne man diw laa bëgg moom laa bëgg mu jiite ma mm. mais tey jii lii ñu situation bi nag moo ñu ko indil léegi après ñoom ñu dem toog ba jomaay ñëw ñu wëlbatiku naan non jomaay euh, nii jomaay non non non non ñu wax waruñ sax critiquer Diomaye mm. parce que situation yi Pastef fi nekk ñoom ñoo leen ko yóbbu ñoom ñoo tas parti bi tëj de ne seen leader du bokk ngeen dem ba ci biir bëgg a indiwaat leader bi naan noonu di indi ay problème boo ci nekkee il ñu bàyyi ay tappale ak ay caaxaan mm-hmm. réew caaxaan yoru mm-hmm. la joxee réew jii da ngay respecter sa bopp mooy respecter décision ñeneen ñi mm. te ñi fi nekk dañ dem ba benn moment mais respecté ñu décision ñeneen ñi mënoo jël nit ki di ko traité candidat des réseaux sociaux mu jóge fa dem ba am 15 pour cent ba tey mënu ne c' est une réalité politique. Mm-hmm. bi nga demee ba nangu ne c' est une réalité politique donc da nga ne moom c' est une réalité politique mais il faut l' abattre. Mm-hmm. politiquement ngeen jub jub mënoo leen koo abattre politiquement ngeen dekkilaat ko indi ko ba pare def seen ay regret parce que lépp lu ñu wax fi ñu ci Ousmane Sonko regret la. c' vrai li ñuy wax Diomaye waxoon nañ ko Sonko ba toog amul expérience. Mm. tey ñoom ñoo toog naan Ousmane Sonko moo tànne moo waroon naa ñëw moo tax je pense que ne lii war na servir son kii ñëw suba mu xam ne tamit am na loo xam ne moo ko moom am na loo xam ne askan wi moo ko moom suba am na ñoom bu ñu demee ci urne yi bu ñu sañoon dañ fay fekk bulletin Ousmane Sonko. dañ ko fay fekk mu teke tey jii mi ngi ak ay droit yëpp mais ngi toog ci wet gi ñu ne ko bokkoo. Mm-hmm. pour lan. Mm-hmm. bu ñu tegul fenn mi ngi ay droit yëpp ñu dajale ko ne ko noo bokkoo demal que dangaa diffamé woon loolu lañ la jàppee bokkoo. Mm. moo tax dama jàpp ne tey jii am na ñoo xam ne ci askan wi ñoom tooñ nañ leen ñoom ñu fi nekk. parce que ñoom ñoo fexe ba bokkul tey nag euh, élément mi ngi nii ñu ngi ne guerre par procuration malheureusement moom bi mu amee ki xam ne daf ko indi pour xeex bi moom dafa indi mbërëm diw ko saafara yóbbu ko saal entraîné ak moom jàppale ko jox ko mu añ ba suur mu dugal ko ci cercle bi ñële di indi seen mbër dugal ko ci oto boo xam ne ñànkar la hmm. di ko saaga di ko sànni ay xeer dem ba ci làmb ja diwuñu ko saafara dem ba ñuy waa arbitre waay ñu dugg si ne ko non bàyyi jàpp encouragé ko tàccu demal demal demal nga am ndam hmm. noonu la demee seen mbër jàppalewuñu ko defuñu ko dara ba une des si ñoom ñëpp ñu tëbandoo daggee si làng nga taxaw nankan yaa fi mën yaay def ñu yaay daan est-ce que loolu c'est sincère moo tax fi ñu toll nii nga gis eh, ñu am benn tiitaange bi parce que d'habitude ki nga xamante ne moo doon génn ci mouvance présidentielle da nga daan dégg lu mu dee dee sax dañ koy crédité benn benn pourcentage bi mais ñoom boo déggee ñu commencé di wax naan deuxième tour day am. deuxième tour day am tey jii APR wala benn bu matoon la mu doon doon. Amadou Ba bu demee deuxième tour ndam la. waaw ndax waaw gis nga xam nga loolu ah problème la. Ah non loolu problème la. <laughs> Euh, a bu jiitoo jomaay surprise la bëri. bu jiitoo jomaay surprise la bëri. bu deuxième tour amee sax euh, xam nga loolu bu fa toll ça veut dire que ñoom la waroon defuñu ko. Mhm. donc loolu lépp nag euh, ñoom neen la parce que xam nga lan moo waral loolu lépp de façon générale liñ naan qui euh, règne par les armes périra par les armes mm-hmm. mais ñoom dañoo régner par la politique politique moo leen di sànkaat mm-hmm. seen lépp lépp lépp Macky Sall ak ñi mu àndal ñoom dañ ko daan ndamoo lu ñu daan wax Macky Sall bii nelaw sax day politique mm. loolu lañ daan wax mm. moo tax politique boobu moo wëlbatiku ray ko tout à fait boobu moo ko rey dañ naan lan non Macky bii nelaw sax day politique c'est un fin stratège faire en politique de mais c'est le métier le plus facile euh, politique musul doxal rew et d'ailleurs Ousmane Sonko bam len ci fekk le daf len duma ñom ñëpp ci politique. Mhm. ah oui parce que il pensait que ni qui ce n'est pas une stratégie politique. mënu mhm. ak nangam. Mhm. tay bi mu stratégie équation bi ñom ñëpp c'est facile. mais bon euh, effectivement il a raison de dire que ni le moment. moo ma. keroog Mame bi muy gis Ousmane Sonko di génn Cap Manuel waroon na euh, remettre en question mu ne kon ñi ñi ñep bay man espoir bii tux hmm. waaw bay la pas c'est qui a empêché Ousmane Sonko d'être candidat. Je hmm. kenn ku place am ne waji millions de Sénégalais. espoir ko ah c'est faux. Combien de fois les gens ont dit qu'il eh, n'a pas porté plainte les l'enjeu de cette affaire-là c'était que vous candidat mm. d'ailleurs condamné deux mois <laughs> que je suis ah. euh, mais parce que Mambay Mambay Mambay il ne pouvait pas mm. faire appel sur euh, mm-hmm. la peine c'est le procureur moom moo def appel ñu corsé peine bi à six mois donc mm. comme tey jii nii des millions de sénégalais parce que benn waaye toog na fi mu toog xool waa ji di conférence de presse mu ne kii lii mu wax neexuma et tu as sapé l'espoir de millions de sénégalais kooku mm. kooku war na war na war na culpabiliser boppam ci lu bare bare bari bari mm. et puis d'ailleurs beaucoup de sénégalais ont dit euh, l'affaire Prodac mm-hmm. euh, pourquoi il a ciblé Sonko pour qu'il ne soit pas candidat c'est aussi simple que ça Macky Sall loolu yëpp daf ko seetaanoon mm-hmm. Mm-hmm. waaw procédure di accéléré muy seetaan kon tu bu toogee Sonko dafa ko mais affaire diffamation capitaine Touré yaa ngi dégg wax Cheikh dixième renvoi. dixième renvoi ba wax ci. espace bu at sax. taf ko ko. Mhm. pour appel bi sax euh, ko. taf taf taf première instance bi ak. appel bi xam nga est-ce que 11 c'est là où effectivement le candidat Bassirou Diomaye Faye a parlé de clochardisation. Mhm. prison pour clochardisation de la justice Et nous, waa PDS yuy jiiñ ay magistrats corruption wax ça c'est la justice sous le règne de Macky Sall mhm. ah oui tout est de sa faute Moi, d'accord, bon mhm. euh, oui Ousmane Sonko euh, na Macky adversaire d'accord ce n'est pas l'adversaire l'adversaire s'appelle Amadou Ba moom Ousmane Sonko li mu bu ko neexee baal ko Diomaye li mu dund bu ko neexee baale ko waaye li nga le Sénégal lañ ko def a fait faaw justice

chef bi ma len ki bo len ko liwul ma lu ne daj lañ ko akki histoire retiendra maki histoire retiendra d'accord suba ñu découvrir ak ñu tagok mom yaangi yaangi ki sa temps

Euh, leur, euh, euh, leur destin. Ça aussi, ça, aussi l'Oscar. a changer si li nga xam Sur ce point aussi, l'Oscar revient à Oscar, mm-hmm. pour parler comme le fils de renseignement, Oscar Sierra. Mm-hmm. L'Oscar revient à Ousmane Sonko parce que une forte implication de la génétique espace politique mm-hmm. il faut il faut il faut saluer le leadership euh, la trajectoire politique de Ousmane Sonko. à mm. partir de demain di nga gis l'émergence de d'autres formes d'acteurs politiques. Mm. démb maa ngi la doon wax ñi nga xamante ne dem à la retraite. Mm. mais dina am ñeneen ñoo xamante ne dañuy émerger émerger te. danaka sax peut-être ken mosu leen woon dégg ci politique té élection yi ni dañ koy def léegi ñooy dem retraite fofu non ñan la. Euh, hier je t'avais parlé de Idrissa Seck je t'avais parlé de Khalifa Sall ñoo ñëpp dañuy dem retraite hein faux départ ñan la. euh ñom Pape Djibril <laughs> et cetera donc euh, ñooñu ñooñu ñi dañuy dem retraite ñi dañuy éclipsé wu parce que une position mom moko ki mais par exemple Dakar tu verras euh, Khoureyssi Thiam Kaolack tu verras ñom ou Ndaw ñom Azoura Fall Tamba di nga dem gis ñom Fatima Zara Wagé euh et c'est ainsi de suite ñi may limal ñi yépp euh, Sénégal dañ nan amul culture politique. c'est len nak suba ngay xamné ne ñooñu am nañ culture politique té am nañ base politique c'est-à-dire refonte bobu nonu mala la wax. depuis mais cette refonte la fan lañu mëna mën a tamit. de façon concrète mais fan la la mënut a jëmee. attention. Hmm. la jeunesse ce n'est pas un handicap. Hmm. y a qu'en Afrique ngay gis jeune bu émerger ñu naan no xalé la amul expérience sawaay hmm, euh, expérience su lan. expérience su lan. na la jangal ba si kanam. wa wa mais attends togal xaar ba si kanam. alors que yow nga war a tabax réew mi mag ñi ngi fi nekk depuis 1960 45 ans sax di bëgg dugg 50 ans ñu naan ko xale nga xaaral ba si kanam c'est ça problème ce procès que l'on fait euh, à Diomaye euh, Diomaye il a 44 ans mais ñu naan dañ naan xale la mais 42 ans foo xale waaye ay mag ay gars dañuy naan Ousmane mm-hmm. xale la na xaar loolu la cette cette cette cette cette problématique qu'on a avec la jeunesse. Euh, Dès que ko am 50 ans mu nous les jeunes. waaw voilà parce que mais attends nakal nakal la que euh, mënee dox ci yow jeunesse da nga koy constituer comme da ngay jàpp handicap là et eh, mais non les euh, forte implication de la jeunesse boobu noonu suba nga koy parce que aussi euh, Sénégal dañoo yàgg am tarif boobu noonu élection moom paa yeeg maire yi ngay jëkk a gis ñu raa ci bureau de vote la mort des idéologies politiques aussi, euh, si on, en parle. C'est acté depuis très longtemps. Hein? Mm. C'est acté depuis très longtemps. L'implication de la France aussi euh, sur la politique euh, sénégalaise. les idéologies. <laughs> déjà, xoolal rek moment bi idéologie di ah, ah. am benn socialisme libéralisme etc. Même Mao qui a révolutionné un peu le socialisme, le ah, communisme, à un certain moment donné, il s'est rendu compte que le mm-hmm. communisme communisme bimu importé n'était pas adéquat à ses réalités sociologiques d'où la grande révolution culturelle mm. que sans fleurs s'épanouissent que sans école de pensée rivalise alors nous nga de non, danoo ngiroo ci idéologie Nous avons noonu la nous ngiroowee 0,1 0,2 ce sont les communistes ce sont les euh, les partis de de gauche etc. nous avons une ñu deful sur idéologique xam le mur de Berlin est tombé l'URSS s'est effondré que nous ñu pour adapter les nga euh, réalité du temps. Mhm. le libéralisme mën nga ko ñëw Sénégal du la jox dara. Mm. le socialisme dara qu'est-ce il est quoi rien du tout. comme disait Maurice Diverger euh, qui gauche qui wala droite il est à mi-parcours de ces deux formations politiques c'est-à-dire euh, le centre. la fin aussi de ce rapport entre la France et le Sénégal. donc l'ère des idéologies. oui tëj idéologie bi dox moom mooy bi problème par problème solution par solution hmm. pas gars statique sur le libéralisme statique sur le socialisme ainsi de suite et hmm. d'ailleurs l'émergence de Sonko en est une illustration parfaite hmm. il n'est d'aucune idéologie politique sinon le patriotisme c'est-à-dire se mettre au service exclusif de euh, de son pays les rapports entre la France et le Sénégal maintenant maintenant maintenant la France euh, c'est-à-dire euh, rupture non nous bon les réseaux occultes de la France-Afrique comme nous le savons, général de Gaulle il savait clairement que le moment euh, africain africains yi indépendance bu joxee indépendance moom mooy France day effondré wu et d'ailleurs France li mu am ci euh, membre permanent conseil de sécurité des nations unies grâce à ces colonies yi nga xamante ne daf leen di alors ñooñu noonu euh, ces réseaux là euh, général de Gaulle il disait que ni moom dafa waroon a indépendance tout en maintenant la dépendance d'où ces réseaux occultes là avec le bras armé industriel mu Elf l'affaire Elf quand bu éclaté avec la juge d'instruction Eva Joly ñoom dañoo gaawantuwaat adapter ces mécanismes de domination bien un aspect euh, après on ne parlerait plus de l'affaire Elf Nanga, mais ce sont les privés français qui ont accaparé accaparer li nga xamantene ne privé hein, parce que Total est privé Eiffage euh, avec Gérard Sénac euh, Bolloré ainsi de suite Ils ont fait gis fépp fu Macron di dem day ak mm. pour ñuy gagner ay marchés, ñom maintenir l'économie africaine mm-hmm. après de financer la vie politique française aussi de créer des emplois en France notamment le terre parce que Alstom était était en agonie ñun ñoko ki légui nak lolu nonu euh, exiger mu dakk looloo tax même sommet France Afrique bi mu changé de tournure nga gis Macron ñëw dajale ñoom Moustapha Mbaye ak ñoom Diab ñu koy jox xar bi baaraam di ko def lu nekk et il a été serein taxaw tontu tontu yo xamantene c'était une opération de charme. Mm. Euh, en direction de la France et lolu noonu yëpp joxewul dara kon donc fim mu toll nii l'impérialisme euh, mënatul partenariat parce que aucun pays ne peut vivre en mm. autarcie. Mm. mais partenariat win-win. Mm-hmm. lolu lolu nak air bobu nonu effectivement Amadou Bami, dafa nek un des piliers fondamentaux de cette France-Afrique là. Ah oui, il ah a, bien sûr, mm-hmm. il a des réseaux très très très puissants euh, à l'international. Euh, je ne fais pas de la propagande, c'est toi qui m'as posé une question. Donc je retire ça. <laughs> Mais, mais, mais, mais, ce qui est inéluctable, ce qui est évident, moi, moi, Sénégal, moi, dina joxe euh, à partir de demain mm-hmm. euh, les couleurs la sonorité pour l'Afrique. donc demain une journée décisive. Je euh, tax ma ne la Bougane limi raté xamou ko sax. Ah. comprendre ko c'est un tournant décisif pour xamante ne. histoire mom moy dugaat refonte de la classe politique mais refonte du système économique refonte de nos relations avec le monde. Mm-hmm. Sénégal dafa wara a wane que ni buumu jàmba Inch'Allah la tu peux vraiment tu es joyeuse pourquoi tu may ah, parce que tu as fait vraiment exposé bu nice hein, comme d'habitude comme hein. d'habitude il a été particulièrement pertinent tu été ma ma ma ma ma ma ma te tey loolu naka la loolu. foofu nag Oustaz Assane maa la moom euh, xam naa fa la mën a ca Walfadjri ba. ba 3 du matin ma xalaat 4 heures 3 heures du matin parce que bu ma nee salon d'honneur après édition spéciale Oustaz Assane kenn mësu ko mënu ko dégg <laughs> ñu koy ziar bu baax a baax a baax a baax fii nii Dakar. Dakar ban kii bien sûr euh, biscuiterie. biscuiterie incha allah waaye yow fooy man hmm. euh, fii nii Dakar. ana sa carte mën naa ko <laughs> Ah. looy laajte si sama carte. na bu war ma ne di nga voté. Euh, yow lijjanti sa vote ma lijjanti sa lijjanti sa vote ma lijjanti sa vote. laajuma la koy voter ndax di nga voté rek. dinaa voté ah, je vais voter. Euh, tu auras des éléments sur le terrain. Euh, incha allah Daouda Djigal ah ak Mamour Moustapha ñoom les internautes de T3B dara du leen umpu ci. non incha allah après soirée électorale fajar la ñuy def. très bien soirée électorale incha allah tu seras là. incha allah ak résultat yeeg yëpp. résultat yeeg ñu faram fàcc ko fi yow tu seras là. <laughs> non non. après midi électoral wala journée électorale kon may leen ma jërëjëf donc di di remercier ñi doon euh, seetaan euh, yëpp lépp loo xamante ne dëng na ci wax ji rek euh, su mata di doomi aadama la ak li fi xew nag booba ba léegi lu ne wax naa ko fi <laughs> di si jégalu bu dama yéeme mais nag ah na élection bi jaar yoon rek ñu dem toog lépp lu si ñëwaat nag ñu waat taxaw incha allah daak rek jërëjëf Ndiame incha allah rabbi merci beaucoup euh, ma des ak euh, sukki Moustapha 22h euh, euh, lañ nar yëkëti yëkkati jotaay bi il est 21h mhm. euh, 37 minutes mhm. fini ci si le côté 3B le temps ñuy rek may Pa Moussa mu dem foofule si kër gu mag gi si Walfadjri mu taxawal mu amat li nga xamné liggéey bu am solo bi nga xamné mu ngi koy def vraiment si espace médiatique bi si ay analyse yi nga xamné yu am solo yi si ma actualité politique bi na ci dossier yi nga xamné lié à la justice madès ak ki nga xamné euh, euh, journaliste bu mag bi Mustapha <laughs> journaliste bu mag bi euh, te man triste souvent, nga tu ne seras pas avec moi mais dina la jéem ki né ne la 30 minutes 30 minutes rek. <laughs> Ah, ñoo far ñoo far mhm. ñoo far par rapport ak implication jeunes yi euh, gis neen carrément bu njëkk bi euh, pas yi euh, looloon politiciens yi di séduire mais da nga gis ne même sax si seen programme yi dañuy gis ñu am parti boo xam ne dañ koo jagleel li nga xam ne mu nekk ndaw yi mu mel comme jeunes yi fu mu ils ont compris que dañoo war a impliqué wu si li nga xam ne moo la politique pour mën a rek mettre le pays sur les rails du développement

par rapport à la chose politique mu mhm. commencé di leen intéressé mhm. ñoom ñëpp ñu gis ne am nañ seen mot à dire ci fi réew mi jëm mhm. maintenant loolu nag dafay dafay dafay ànd xam nga jeunesse souvent dafay identifier boppam euh, par rapport à au changement. Mhm. Euh, dafay identifier par rapport ak ben changement bo xamanteni mi ngi ñew ci kanamam. Mhm. bo xolé Abdoulaye wad bi mi ñew en 2000 jeunesse bi ñom ñoo porté un changement mm. euh bo ñëwaatee aussi tamit Macky Sall mënu mako tuddé changement bu ni mel parce que am nañ alternance du naat alternance. mais changement bi ñu dëgmal ni tamit jeunesse bi ñoko ko porté waat. Mm. Mm-hmm. te lolu dafa am ay signaux yo xam dañ ko yag di wané bo gisee fi bi ñu waté liste di voter man dama dégg ben jour ben reportage mu am ben jeune bu ne man li guddi lay liggéey. donc bëccëg bi laa am pour ñëw dama mhm. waroon dem nelawe ji mais nelawu jiw ma damaa ñëw toog fii ci sous préfecture bi bëgg mhm. bindu bëgg mhm. dem vote ji nga comprendre si lan nga comprendre que si kon euh, ndaw ñi dem nañ ba conscient que ni ñoom dañu bokk si ñu war a doxal mbir mi donc seen droit la seen mbir la boo xam ne ñoo ko moom ñu portel ko seen bopp téye ko euh, jàpp ko bu baax a baax te loolu dafa am lu ko renforcer mooy fibre patriotique bi nga xamante ne waa Pastef indi nañ ko ñëw gëmloo biir ngeen bokk affaire bi yeen la yeen la concerné. Mhm. motax tax euh, ñu bari ci ñom bo leen déggé ni ñi waxé seen ay militant jël leen seen ay carte ñeneen sax duñ ko waxé noonu xawma ma tax yaa ngi ciy bàyyi xel. parce que dañu xam ne primo votant yi booy xool ba ci ëpp ñoom ñoo ci war a ëppale. Mhm. booy xool ndaw ñi ñoom ñoo leen gën a jox loxo kon affaire bi du topp caravane yi kese waaye jël euh, carte ba la dem voter ñu ca ca ca ca urne ba kon ndaw ñi euh, fay rimer ak changement mais da fay rimer euh, souvent ak euh, li nga xamantene ne moo idéologie wala gis-gis bi leader bi di incarner tax ñu ñu ñu jox ko bop cette nouvelle force aussi qui émerge euh, mu mel comme euh, dañu nek ci li nga xamné mo nek la fin euh, des idéologies lolu fan la mën a aussi le Sénégal surtout ban enjeu le mën am aussi si élection présidentielle bu 2024 bi surtout perspective d'avenir yi nga xamné mo moo ak ñun parce que mën nañu wax né carrément d'ici peu dina nek un pays bo xamné walum pétrole beeg gaz bi dañ mm-hmm. ragné ko bu baax waaw mais xam nga dëkk la boo xamante ne pour man. Mhm. li nga li nga li nga expliqué nii euh, ban enjeu la yóbbu. nit ñi niñ ko niñ ko niñ ko toppee ak niñ ko niñ ko niñ ko niñ ko gëmee. Mhm. dama dama dama dama jàpp ne. yeneen yéen beneen ubbeeku indi manam ño xamantene ay acteurs yu bees dinañ leen am dinañ am ay acteurs yu bees mhm. dinañ am ñeneen ño xamantene tay ji amana euh, rôle bi ñu daan joué ci ginnaaw la doon nekk ci kanam lañuy ñuy nekk di jouer mm. di nga am acteur acteur politique yo am ne sont relativement jeune mhm. trans d'âge bi bo boobu tu li ci gëna fess 40 ba 50 ans lay mhm. doon donc lolu lu bees lay doon troisième âge bi dinañ dem retraite ñu bari bi mo doon sen sànni tàccut bu ñu fa jógee dañuy dem retraite encadré boy ñu yéeg dem ñu pousse donc renouvellement bobu nonu faw mu am Mhm. te su amee nag léegi su boobaa euh, beneen cadre la am beneen espace politique la am boo xamante ne euh, forcément nag léegi ay buggaan yi nga xam ne dañoo taxawoon ci wet gi après ñoom ñoo taxaw di regretter. ak xamante ne dañoo nangu jouer rôle neutre. Mm. parce que am na fu situation yi toll pour man boo assumé li nga xamante ne mooy situation politique bi daf lay daf daf daf lay daf lay effacé. Mhm. donc euh, foofu da ngay gis ne kon li ci gënoon a am solo mooy nga bokk ci contribuer ci participer ci soit. comme opposant wala nga bokk nga xam da ngay and ak ñi nga xamantene ñoo jàkkaarloo ak ñom parce que lool pour man bonul sax bo àndee ak ñom au moins bokk nga ci mbir mi buñ la gagné nga dem toog ci opposition opposé ak ñi nga xam ne ñooy toog loolu soo au moins di nga nek acteur di nga participer di nga contribuer ci jeu démocratique bi mais li bon moy ñenn ñi nga xamantene ne dafa melni amuñu lecture politique bi wala jéemuñu ko comprendre tok seen ruq tok seen koñ euh, nangu ñoo participer nangu ñoo bokk sous prétexte que ne non je suis pas euh, considéré wala d'accord accord ma ci li ñuy def yëgaluñ ma. Mm. loolu baaxul parce que histoire mooy évoluer mooy avancer. Mm-hmm. te dafa war a baax dafay am solo nga bokk si ñi nga xam dañ koy avancer loo wala nga bokk si ñuy contribuer euh, pour suba bu ñu koy nettali nga mën a am loo ci wax wala nga mën ci am benn partie bu am solo boo xam le traitement médiatique aussi ku wax élection présidentielle surtout élection présidentielle bi nga euh, comme ni nga ko waxee rek dafa une élection boo xam musuñ ko euh, Sénégal euh, c'est la première fois ñu reporter élection c'est la première fois ñu am élection boo xam le président sortant bokku ci c'est la première fois boo xam élection bi sax leader yi nga xam ñoo nekk les leaders naturels naturels dañoo def rek li nga xam combat par procuration.

te loolu xanaa waxtaanuñ ko ci rédaction lan lañ ci jublu pour manipuler masse mm. loolu mooy lu ñaaw li cest à war nañu ndëppaat presse bi ñu xoolaat euh, yenn doxalin ak yenn yenn yenn te malheureusement li ci gën a grave ñi ñuy woowee ay doyen ak ay mag ñooy nekk ci rédaction yi. am yenn taxawaay yoo xam ne yow doo ko mën a comprendre. Mm-hmm. taxaw di wax loo xamante ne leer na amoo ci benn preuve di wax pour suuxal candidat bi di wax pour jaay candidat bële ay mbir la yoo xamante ne war nañ ko mën a xoolaat beneen mbir tamit bu ci amaat mooy presse en ligne bi mhm. dañoo jenguñu sax waaye dañoo tëdd mhm. maanaam presse en ligne dañoo problème vue moo leen sonal waaw ñoom ñoom c'est ça problème vue te te loolu loolu moo leen yóbbu situation bi ñu nekkee les vues vues yi moo leen yóbbu fi ñu nekk démb euh, démb dafa am déséquilibre vraiment si euh, traitement il faut qu' qu'on en parle non loolu mënuñ ci dara parce que vues yi mooy dundal yoonu chaîne yi mm. léegi vue bii dundal chaîne bi chaîne bi bu lancé si Diomaye dañ ñii dañ koy seetaan mais Diomaye rek lay lancé mm, mm. yoonam du nekk si keneen ak keneen ak keneen mm. c'est aussi simple que ça ñii ñooy maye ay vues te man vue laay amee xaalis kon ci ñoom laay lancé pour ñu mën maa seetaan point fa lañ koy teg jéemuñu nekk sax di wër na naa dugal kii naa dugal kële naa dugal kële foofu nag la problème bi nekk mm-hmm. léegi nag dans ce naka la ñuy def pour encadrer chaîne yi

bañ nañ ko sax ba seen leader moom moo ëpp abonné si leader politique fii mhm. Sénégal moom muy mhm. romb na million ba da dem mhm. ñeneen ñi kenn amagu fi un million te sponsorisé wul deful dara mm. kon ñoom affaire communication digitale affaire buzz digital ak ak yu ni mel ak yooyu moom seen mbir la ku leen fa fekk ay maa la ëppale vues si YouTube xoolal ñu ëpp vues ci xoolal ñu les personnalités les plus suivies au Sénégal ñëpp Pastef la ñu fare boo jëlee Cheikh Bara Ndiaye nga jël Dame nga jël El Malick Ndiaye ñi ëpp audience ci Sénégal ñëpp Pastef la ñu fare ñëpp yow tey ji boo bëgg sa sa sa chaîne explosé bi rek jëlal si ñooñu ma li kenn nga indi nga teg nga xool mm. jëlal nguur gële fële nga indi Amadou Ba nga indi keneen da nga xool Amadou Ba mm. sax campagne gis naa ne mi tane mi góorgóorlu mm. mais indil ma seen porte parole lu gouvernement nga teg ko nga xool mm-hmm. boo moytul boo ko jëlee ak benn activiste nga teg leen plateau bi ñu toog nga enregistré kii 12 euh, heures nga enregistré ko 13 heures nga lancé ko nga xool kële kenn du ko seetaan léegi nag loolu ne sa modèle économique loolu la imposé noo da ngay toog naan man damay équilibré rek japp sa ñaam damay équilibré moo presse bi moom euh, vraiment war neen xol euh, yenn mécanisme de financement yo xamné li lu ñu war a pour ne pas vraiment être euh, l'otage de ces vues wala sax l'otage de certains hommes d'affaires pour ne pas dire de politique pour mëna def vraiment liggéey bi ci anam bi nga xamné mom leen ko jangé aussi ci école yi ouais mais du yomb en tout cas. parce que modèle économique moo leen ko imposer. oui yow tey jii booy am na ñoo xamante ne boo leen invité ñaari kenn suivre leen dootu leen invité ti. Hmm. am na ñoo xam ne boo leen invité ñu suivre leen boo toggaatee quelque temps après nga war ko ni ko ñëwaatal. donc finalement euh, recherche xam-xam bi aussi des fois da ngay gis ne am na ay kam-kam yoo kàngam yoo xam ne. kenn du leen euh, déglu parce parce que amuñu xorom kenn du leen seetaan. <laughs> est-ce que am xorom aussi est-ce que am xorom moo yor réew aussi tamit non bokkul li ñuy wax ne ak yor réew bokkul parce que lii question de question de kan lañ gën a suivre kan lañ mm. gën a toppal affaire yooyu mais yor réew moom c'est c'est c'est autre chose c'est vrai c'est autre chose c'est c'est c'est c'est c'est c'est vrai euh, yéen a ngi seen euh, yéen a nekkoon seen émission ba tey ñu ngi si il est vingt et une heures quarante-huit minutes vingt-deux heures incha allah leen fas yéene rek euh, yëkkati li nga xam ne moo nekk jotaay bi nga xam ne depuis démb ñu leen ko amal pour rek mën a wax waxtaan euh, euh, par rapport à l'élection euh, présidentielle bi ak enjeu yi nga sénégalais yi quelques heures rek moo 19 candidats yi qui ont été validés par le conseil constitutionnel via si li parrainage pour ñu rek concourir si fauteuil président de la république Macky Sall qui de ces 19 candidats mooy euh, wuutu ki nga xam mo nek le président de la république Macky Sall mu def ci euh, liggéey bo xam euh, ci tek aussi gët reñe fi si ñaari mandat mu nek un président bo xam pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal du bok aussi élection présidentielle yi nga xam rek pour ñu wuutu ko fi mu nek vraiment élection bo xam ne aussi show par rapport ak processus bi même ça les situations yi nga xamné Sénégal depuis 2020 les événements mars événements juin même sax événements après les reports on a compté nos morts 80 et quelques morts yo xamné rek les chiffres officiels mom wax walum dégâts yi kenn mënul xam euh, lan la euh, coûté li nga Sénégal euh, Sénégal en termes de milliards créé aussi une facture sociale bu on espère vraiment que ces élections présidentielles présidentielle bi nga xamné ñu cette élection présidentielle bi nga xamné ñu ngi si euh, bëgg dem euh, dina indi euh, ce vent de changement bi nga xamné sénégalais ñu ngi koy wax mu nekk changement bo xamné ku nekk de ci gis sa bop mu nekk lo xamné rek sénégalais yi dinañ mëna vivre normalement l'industrialisation le travail des jeunes même hobby nga xamné la plupart des sénégalais dañ koy dégg rek wala duñ koy gis sax si film yi sénégalais yi mëna vivre de façon vraiment euh, descente qui euh, nous euh, nu mu koy on termine par li nga xamné mo nek enjeu yi nga xamné ne war na ñëw si kanami ñi di wara jité Sénégal qui di wara jité Sénégal si après dimanche wala sax ci jour dimanche ñu xam carrément nak la wara kan mo wara ki di président de la République Macky Sall défi nga xamné dafa nek si kanami kokulé waaw mais ba balaa balaa balaa loolu xam nga dafa lu bëri ñoo xam ne dañuy politiciens dañ koy def fan yi fan yi. fond de commerce muy lan mooy dëkk bi il faut ñu réconcilier lii ak ñan la ñu réconcilier jàpp. Mm. ñan ak ñan ñoo fi xeex fi ñu toll nii. kenn meroo fi de. ñan la. dañ koy gis ñoo xam ne ñu ngay ñu ngay ñu ngay dóorante comme ni ñu koy boo demee fii dégg ñu ne ethnie bi wala ak ñii wala ñi ak ñi da nga ko fay gis gisoo ko fi. Mm, mm, mm. donc c' est à dire man mënuma comprendre loolu. ñom ñoo am problème seen biir ñoom ñoo am problème seen biir. merci ñoom ñoo am problème seen biir. Mm-hmm. benn camp ak beneen camp ñoo doon xeex. ñu pare c'est vrai am na ay dégâts collatéraux parce que am na si ñoo xamante ne euh, dund nañ ci musiba ñi dàq nañ leen ci ñi seen sëy tas na si lu nekk xew na ci. c' est mm-hmm. vrai am na ci waaye nak dem ba ay réconciliation ak mel ni dëkk yi nga xam ne dañ koo guerre ay at i at i at. vraiment ñun yàlla ak ñi dimbali je touche du bois dundu gu ñu guerre ak yu ni mm-hmm. mel ak yooyu noonu. donc yooyu yëpp ay mbir yoo xam ne gis naa yenn campagne yi mm-hmm. yenn euh, candidats yi gàddu ko ci campagne bi naan mm-hmm. noo damay ñëw pour réconcilier sénégalais sénégalais soxluñu xam nga senegal lu ñu sentir mm-hmm. sentir seen bopp ci réew mi maanaam nekk ci réew mën fee dund tekki fi am fi li nga bëgg te doo dem bitim réew loolu lañ soxla maanaam li li li ñu moom ñëpp ñi ngi naan pétrole di ñi ngi naan gaz ak yooyu yëpp buñ ko exploité sénégalais gis ci sen bopp li nga xamné mo nek euh, mbëkk bi. nga xam ne ça nous a vraiment coûté beaucoup de morts. lolu lolu loolu mooy affaire bi. Ah, naka la seen dund di changer changé. Uh-huh. naka la ñuy toogee inégalité bi nga sociale bi fi am tey naka la ñuy ba soppi ko. Mm-hmm. yooyu la soxla véritablement pour man lolu moy défi yi nga xamante moy xaar ki di ñëw suba.

comme bu bu wasaaroowee rek ku nekk gis sa bopp ci réew mi. si emploi boobu dama bëgg ñu taxaw si parce que Sénégal am na ñoo xam ne sax am nañ emploi mais de ces emplois précaires tey SMIC bi est-ce que Sénégal waruñ koo xoolaat président buy ñëw parce que il paraît que euh, SMIC bi euh, Sénégal di am c'est depuis après les indépendances moom la ñuy utiliser ba tey tey ji euh, da ngay liggéey mais c'est des emplois très précaires et que ça ne suit pas li nga xam ne moo nekk le niveau de vie surtout boo nekkee à Dakar. Oui, mais loolu xam nga xam nga xam nga lu waral. Mhm. mooy dañu jël affaire réew mi yemale ko ci benn cercle bu yem rek. oui ñoom ñooy séddoo xaalis bi. Mhm. ñoom ñoo am xaalis bi euh, ñoom ñooy bénéficier ci privilège yi. Mhm. ñoom ñooy voyager di am cercle boobu bëriwuñu benn parti lañ nekk ci rëkk bi moom la ñuy wax Sénégal bi ci kaw ak Sénégal bi ci suuf mm-hmm. léegi naka la ñuy def ba kase ko ba Sénégal bi suuf dem rejoindre Sénégal bi ci kaw mm-hmm. c'est vrai amul dëkk booy dem ñëpp toll amul mais euh, comme ni ko Sékou Touré doon waxee mu am benn partage de de la pauvreté ñu mm-hmm. séddoo pauvreté bi buñ ñu ko séddoowee rek dina doon loo xamante ne dina tane te bu tanewee ñenn ñi euh, dinañ xaw a gis seen bopp ci réew mi mais su fekkente ne tey jii da ngay gis ñoo xamante ne am nañ xaalis di exploiter ñenn ñi. Mhm. ñenn ñi amuñu xaalis sëgg nuuru. di def mhm. euh, parce que mënuñoo kaas parce que euh, liggéey bi ñu leen di jox wala weccet bi ñu am buñ kaasee dootuñu ko amati problème dafay am. Mhm. moo tax ma jàpp ne tey jii euh, kii ñëw suba il faudra que mu doon koo xamante ne non seulement justice bi. lu la neex def dara du la fekk daf fiy jóge. di liggéey di fayeeku lu ndaw mu def ci effort waaye tamit doo liggéey di fayeeku mu def ci

ngir mu dem mais bu ñu ko deful euh, tey jii après dañuy nekk dañ sur place nañuy def rek. jàng bi aussi jàng bi parce que on a un système euh, éducatif boo xam ne euh, mun nañoo ne njàng mi ko ba sonn dugal njàng mi xool nuñ ci dugalee langue nationale c'est vrai ñu ñu bëri def nañ ci ay proposition seen programme yi. Mm. langue nationale dugal ko ci. jéem a xool dugal anglais bi ñu bëri dégg nañ ko ci xale yi doon ay bilingue ak yooyu parce que àddina bu ubbeeku la ñu mm, nekk mm. Euh, naka la ñuy def ba maintenir xale yi ci biir école yi ak yooyu yëpp je pense que am nañ ay programme yu ubbeeku yoo xamante ne euh, buñ ci buñ ci bàyyee xel rek mettre ko à l'œuvre Euh, mën en œuvre à mettre en œuvre autant pour moi mën mhm. nañ ci mën nañ ci am dara. 21 h 55 minutes il nous reste 5 <laughs> minutes pour nous rek écouler li nga xam ne moo euh, temps bi. mën nañu wax journée suba bi ah. Hein? Euh, waaw journée suba bi allez-y allez-y parce parce que parce que je pense que. yaa ngi doon dégg ñeen di wax affaire sàcc élection ak yu ni mel ak dafay dafa dafa dafa doon baax ñu ñëw ci ci processus yu ni muy demee. Mhm. avant jàpp bu fekkente ne dañu ñëw ci bureau de vote bi. Mhm ñu dajale lépp mhm. après PV bu ñu koy compté dañuy ñëpp dañuy toog ak représentant ñu compté ba noppi mhm. léegi bu ñu ko compté dañ ko yóbbu ci commission départementale de recensement des votes voilà commissions départementales de recensement des votes boobu ñetti magistrats ñoo fay nekk mhm. trois ñetti trois magistrats ñoo fay nekk plus les observateurs waaw dafay am benn membre bu Sénat parti bu nekk da nga am benn représentant ak sa suppléant suppléant c'est-à-dire benn saalu mag la ñuy toog loolu commission euh, recensement commission départementale de recensement des votes la waaw ñooñu buñ ko defee au niveau départemental la bu ñu loolu ba pare amuñu droit annuler PV mm-hmm. amuñu droit modifier PV mm-hmm. dañuy dajale par ñu yóbbu ko ci commission nationale de recensement des votes mm-hmm. boobu président cour d'appel bi moo koy jiite ànd ci ak ay magistrats moom bu wuutee moom mooy tànn benn magistrat mu mu complété ko ak benn membre Sénat ku nekk teew ak sa représentant ak son suppléant kon foofu tey yaa ngi gis schéma bi yëpp euh, yaa ngi gis yoon bi yëpp ba commission départementale bi ba commission nationale da nga représentant bu la mm. defuñu dara ñu def conseil constitutionnel. Mm. les commission nationale bi moom mooy résultat provisoire yi. bu génnee résultat provisoire 72 heures pour ndax da ngeen def réclamation. Mhm. déglu candidat yi candidat yi kese mooy def réclamation. Mhm. bu ñu defu réclamation mu jël euh, résultat yi jébbal ko conseil constitutionnel mu déclare résultat provisoire mhm. résultat provisoire lii ak lii am na jox ko conseil constitutionnel. léegi conseil constitutionnel euh, su gisul réclamation su gisul réclamation mu génnee résultat définitif non autant pour moi ñële duñu jël réclamation mais conseil constitutionnel moo jël réclamation yi. donc ñoom bu ñu génnee résultat provisoire dañ koy jox conseil constitutionnel conseil constitutionnel xaar 72 heures ndax réclamation dina am bu amul mu daal di génnee résultat yi su fekkee ne réclamation am na mu toog 5 jours traité ko doog a génnee résultat yi. tout à fait su koy annulé mu toog jàppaat 21 euh, jours après demaat élection. loolu moo nekk process bu normal loolu loolu mooy process bu normal. léegi. Mhm. ñun journalistes yi résultat yi nga xam ne dañ koy joxe euh, la veille jour yi élection bi jour élection bi là c'est c'est les premières tendances. Mhm. du ay résultats définitifs. waaw loolu ay tendance tendance sax l'inquiétude koy voilà <laughs> ay tendance parce que ben ben ngay am. ben ben ngay am lolu ay tendance donc loolu euh, mënuñ see sukkandiku pour vraiment xamné ki mo gagné wala ki gagné wut. non non parce que lolu aussi mun indi aussi. non mun na mun mais comme légui da ngay réaction sam dañuy tok am ben statisticien bu tok ci wet gi. Hmm. c'est-à-dire luñu dajalé mu dugal ci machine bi mi génné mi génné jag groupe yi. muy hmm. génnee am ñom non lañuy évoluer. oui ça c'est vrai luñu am indi ko luñu am indi luñu am après courbe commence à dégager comme la RFM du fait ouais, comme RFM ni mhm. du fait boo demain ba ba ba vingt heures tendance à commencer commencé dégager wu commencer de commencer à dégager mhm. nga gis qui am na tant pour cent qui mi qui ci qui est yéeg na na su boobaa nga commencé xam est-ce que on va vers un second tour wala élection bi c'est déjà plié euh, ci premier tour bi l'olé après ci tigre ci tigre ci nga gis mais là euh, loolu moo ñu expliqué noonu pour nit ñi xam ne yaakaar nañu dañuy jël élection après. Mhm. xam nga amoon na fay temps ñi voté encore indélébile amul. Mhm. da nga daan voté fii génn dem voté waat fële génn dem voté fële c' était comme du yaama neex. Mhm. avant ñi c' était les années 80 mais fi ñu toll nii tey jii ak fi réew mi toll nii da ngay gis na kon euh, processus ni ñu ko dooree nii daal je pense que euh, sàcc bu si doon am en amont nga koy sàccee nag. en amont nga koy sàccee mais pas ci bis baak yooyu noonu du doon loo xam ne lu yomb lay doon. donc euh, ñun journalistes yi rawatina reporters yi nga xam ne ñooy nekk sur le terrain euh, war nañoo euh, prudent ak tamit responsable par rapport ak information yi nga xam ne ñu ngi koy joxe. surtout surtout ça mais xam nga information yi ngay joxe soxna Ndiaye. oui loolu kay yomb na yow xaaral bu ñu defee PV pare affiché ko nga jël. Mm. lire taxaw voilà. xam nga léegi avec buzz beeg course information bi yeeg yooyu des fois mais mais def ndànk rek. waaw man pour man je préfère sax PV bi nga xam dañu koo dugal moo gën. ma traité. nangam nga ak daw en erreur. surtout surtout surtout filtrer vraiment information yi nga xamné koy am sur euh, le terrain juste vous rappeler que euh, suba inchallah euh, jour élection bi la rédaction de T3B télébo Barbie, bi dina accompagner tout au long de cette journée décisive suba tel rek l'équipe des reporters dinañ dem rek sur le terrain leen jox leen li avant première yi image que bureau de vote yi ak euh, ñi nga xam ne moo nekk euh, les politiciens yi féetoo Ndakaaru euh, ban bureau leen voté ndax ñi nga xam ne moo la population ñu loon gisee ñu loon dare caravane est-ce que génnee neen noonu si journée de demain bi loolu yëpp di en direct avec Daouda Djigal et son équipe fii T3B te les mangon bi man allah rabbi à partir de 16h euh, dina avec euh, des invités Pa Moussa il sera là peut-être euh, qui dit, Fou Malade aussi dina dina fi et d'autres invités surprises yo xamné dina am pour ñu rek ñu analyse par rapport à cette journée d'hier des appels téléphoniques aussi dina ko am de part et d'autre pour rek un xol xool lépp rek lo xamné ne si journée demain bi mu nek journée bo xamné euh, wallaay euh, sénégalais yëpp euh, yàkkamti neen ko nekk benn journée bu nara décisive pour l'histoire politique du Sénégal je pense qu'on a fait le tour de l'actualité journaliste bu mag journaliste ndaw <laughs> <laughs> ça a été un plaisir. C'est partagé. suba toujours tu tu euh, suba di nga def benn crochet de 30 minutes. waaw dinaa dinaa xool ak sama faut faire un crochet. bu ci xajee rek ma jaar. man nga boo ñëwee yow Pa Moussa da ngeen may wéttal l'autre là. non Pa Moussa amul ma amul moom Pa Moussa moom. <laughs> du nit dara naa ko du nit non pas non pas Moussa beneen affaire la du nit dara sama xarit la naa ko sama xarit la merci beaucoup c'est vraiment un plaisir di accompagne di lay ànd ak yow euh, saa su nekk on apprend beaucoup aussi ah. avec vous yow euh, vraiment sama doyen nga ci euh, métier bi <laughs> nga ci def liggéey bu am solo waaw journaliste bu mag bi na sama doyen nga si métier bi nga si def doyen liggéey bu am solo vraiment jërëjëf vrai jërëjëf merci euh, si fan yi ni ngi ñuy accompagner le mot de la fin surtout une petite sensibilisation ci euh, élection yi. cette journée de demain waaw xanaa xanaa di leen fàttali rek ñoom ñi ñiy voté ji. ku mhm. ci am bracelet nga bàyyi ko sa kër. ku ci am surtout les bracelets ku ci am casquette boo xamante ne dafa am euh, nataalu ku bokk ci kii bi. Mhm. wala message politique message politique wala lu ni mel yooyu yëpp mën nañ ko teg kër ga. <laughs> Euh. yëre wala t-shirt wala yëri soxna yooyu yëpp. nañ ko teg kër ga dem vote ji tranquillement mhm. surtout nag puis ñu bàyyi xel bu baax a baax li nga xamante ne. Euh, mooy naka la anam amalee anamu vote bi. Mhm. maanaam bulletin bi bi mën nga am droit jël juróom. Mhm. comme 19 lañ teg euh, kenn ngay dugal ci enveloppe bi ki nga xam ne moom nga bëgg voter yeneen yi nga sànni leen. ci ci suuf te bu ñu collé enveloppe bi ko collé. Mhm. voilà euh, te kenn du ko collé te léegi sax enveloppe bi amatul col. Mm, amatul col amatul col waaw mm. loolu moom boo ko collé sax je pense que ba. balaa 18 heures ñu koy di euh, col ba dana dañ comme amatul col mais daal li gën a mooy bu leen ko collé mm. bul collé parce boo collé bulletin bi nul lay doon buñ koy wax na nga foog ne dañ koy wax parce dañoo compliqué du loolu mm. mooy boo ko collé dugal ko ci kan ko collé dugal ko kooku amul dara mm. donc loolu pour man Euh, nañ ci bàyyi xel bu baax beneen mbir bi ñu ànd ak sérénité ak daal. surtout Sénégal yemul ci suba. surtout mu ànd ñu ànd ak sérénité ak daal c'est très important. on a toujours voté. le dimanche lundi euh, ñu liggéeyi dañu am culture démocratique bu bu avancé bu sori ah. et malheureusement amna école yo xam ne sax joxe neen consigne que lundi euh, warul ko xale yi jàngi. waaw peut-être parce que xamuñu xamuñu lan mooy am des pas prudence la xamuñu comme xamuñu lan mooy am dimanche moo tax. te souvent élection moom dafay lendemain bi yenn saa yi mais fii dund nañ fee élection yi gën a

Euh, mbir mi yëngatu woon na bu baax a baax. Mm-hmm. après si leen tëjee Abdoulaye Wade. Mm-hmm. Idrissa Seck ak Ousmane Ngom ak ñeneen ñi ñu tëj leen. bañ ci jógee ñu dem ba 91 si leen def gouvernement d'union bi. Mm-hmm. Abdoulaye Wade dugg Amath Dansokho dugg Bathily dugg ñoom ñëpp ñu dugg. ci leen defee gouvernement d'union bi ñu ubbi ko Jean Collin ñu tëbal ko parce que moom lañ ne woon tànk mi ngi fi du ñu dugg. donc yëpp amoon na fi. histoire. Ça, c'est l'histoire. C'est vraiment l'histoire. Merci beaucoup. Merci aussi hein, à tous ces internautes à chaque fois rek euh, euh, jotay euh, et tant de fois précieux Fatima Zara MI7 mm, production aussi Beaucoup de signes. comme nga xamné nous MI7 production je te souhaite vraiment bonne chance si élection qui dit Dambay aussi ñu koy ziar bu baax di koy jox wax wayam waayam Ndiaye Sidia Diop euh, Fatou Ndiaye euh, kii di euh, Karabé ziar na ko Dambay aussi la même chose Moussa lami aussi Moussa lami l'ami de MI cette production aussi parce que da ngay dem ba live bi ñom dañuy nek une petite famille. des fois ñu xuloo wante des fois ñu mm-hmm. juboo dañuy sànnante mm-hmm. et vraiment c'est la démocratie c'est ça le le Sénégal Amadou Diallo aussi ñu koy jaajëfal bu baax baax Moussa euh, ki di euh, aussi jaajëfal nenko Nenko, aussi nuyu nen franchement nous, limé limee euh, dañuy joom ñom ñom ñom abdul Fatima Zahra Issa Ba aussi la même chose c'est vraiment des habitués de cette chaîne Balagnan aussi Michel Aina aussi Sira Sonko aussi Manko ko ziar bu baax di koy jox li nga ne nek nekk Mkhar Mbaye aussi. Euh, vraiment, ça a été un plaisir euh, euh, liggéey à yéen parce que vraiment mon nom est liggéey à yéen c'est une contributions c'est une critiques tout au long de ce processus électoral un grand merci à vous yi nga à chaque fois bu ñu fi ubbee waxtaan bi yéenay ànd ak ñun euh, di ñuy dooleel si liggéey bi nga xam def euh, demain mu nar a nekk li nga xam cette élection présidentielle bi enjeu particulier enjeu majeur yi nga xam war nañ ko war nen direct si jàmm ak salaam euh, que rek ñu sécuriser li nga xam ne moo vote bi que le meilleur gagne ki nga xam ne gën pour le

ah Abdoulaye Wade <laughs> Abdoulaye Wade suñu mam jooju <laughs> kenn vraiment surtout sénégalais yi vivre de manière décente xam lan mooy loisir xam luy hobby xam lépp rek lo xamné mm-hmm. euh kuy dund kuy def yëfi nit euh, mu xam ko nit ñi dund ci li nga xamné ne nek ci harmonie bi euh, famille yi euh, mëna souffler surtout suñu papa yi suñu yaay yi du dem sax légui ba am li nga xamné ne nek problème dépense quotidienne luñu ñu yaakaar si élection présidentielle bi yalla bu yalla tas yakar yalla, mën nako yalla nako yalla def inshallah, rabi. rabbi un grand remerciement aussi à Mustapha et toute l'équipe de T3B télé bu euh, qui dit euh, Mohamed aussi euh, nga xamné à chaque fois aussi mu ngi nekk si réalisation bi ci technique bi ak lépp rek lo xamné du doxal liggéey bi gis neen carrément taxwayam bi ñom Daouda ñom Mamour qui sont de l'autre côté et toute l'administration de T3B donne rendez-vous demain, Inch'Allah, au Rabbi, euh, si euh, journée euh, de campagne bi. D'ici là, prenez soin de vous. Excellente nuit et très bon dîner. Merci.